mbokku téléspectateurs yi comme chaque soir rek ñu joxante rendez fii seen plateau After Ndogou plateau bi leen xalaat plateau bi nga xam ne ay teranga la yor pour yéen plateau bi leen di relaxé euh, ci diggante naafila ak xëdd ndax diggante boobu nee naa leen à chaque fois ñi dañuy génn seen salon wala seen cour yi seen ëtt yi euh, ngir attaaya ñii di daal di ñii di daal di euh, di def li nga xam ne moom mooy rassemblement amical wala rassemblement familial ñun nag ci la innovation moom tey dinañu yóbbuwaat ci ENE ndax ENE dafa am solo am maanaa am euh, thème boo xam ne dafa yaatu tey nag day wax ci tatouage des mains maanaam ni nga xam ne nañu defee tatouage ci mains yi ñu ànd ci ki nga xam ne ne aussi moom mooy bébé chou bébé chou nag moom comme temu jeune la moom day xool tey jeunes yi naka la ñuy wooree di nelaw maanaam nelaw gi jeunes yi di nelaw daal moom moo ko métti ñu koy teg ci kaw table fa yéene ko jàmbat euh, ki nga xam ne ne moom mooy faafa moom nag day dellu ci ñi nga xam moom mooy métier ak corps muy menuisier métallique moom la tey fas yéene waxtaan ak moom moom it liggéeyam ci biir corps bi bu ñu fàtte ne aussi que dañuy am suñu boutique di ko ubbi euh, boutique bi nag suñu ko ubbee yéen lañ ko jegleel yéen ko moom du kenn ku dul yéen donc partenaire yi ñu ciy àndal muy Patisen mooy number one fii ci agroalimentaire fii ci Sénégal ki nga xam ne aussi moom mooy euh, Good Life Store nee naa leen lépp lu jóge États-Unis ci produit rek ñoom ñu ngi koy commercialiser fii ci biir Dakar donc loolu yëpp nag ñu ëmb ko jegleel leen ko seen plateau after ndogu mais balaa may dugg damay dem seetaan li nga xam ne ne moom mooy Yaa Seydaat mu euh, nga xam ne moom la ñuy jox ci l'islam dañu dem plateau tout de suite. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi seetaan seen télé la 2STV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ziyaare ci weeru màgg wu tedd wi nga xam ni borom bi subhaanahu wa moo ko jagleel xeetu sayduna muhammad yépp fa tabarakallahu muy weer woo xamante ne weeru nangu ñaan la weer woo xamante ne jullit bi bum ci xeeb dara ci lu muy ñaan xataa ba ci xorom bi nga xamante ne bëgg na muy safal ci nam saa su nekk sax na koy ñaan ci weer wii ndax borom bi subhaanahu wa dafa wax ni wa ida saalaka ibaadi fa inni garib ujibu daawata daaci ida daani fa tabarakallahu kon weer wi weeru ñaan la na jullit yi jël soxla yépp dëxañ ko ci weer wi saa boo dee dog na nga fexe nga ñaan ndax waxtu wi nga xamante ne yow ki nga xam ne yaay aji woor woor nga bay dog soo dee dog diggante boobu loo ci ñaan borom bi subhaanahu wa taala la koy nangul yonent bi salallahu alayhi wa sallam dafa wax ni al imaamu al aadil wa daawatul mazlum wa saaimu xiina yuftir loolu seen ñaan borom bi subhaanahu wa taala du ko delloo mukk kon nañu ñaanal njaboot gi nañu ñaanal sunu Sénégal gi borom bi subhaanahu wa def fi jàmm nañu ñaanal njaboot gi ñaan réew mi yàlla defal ñu fi jàmm lépp loo bëgg ci lu baax bul bàyyi lenn nanga ñaanal sa jëmm ñaanal sa njaboot gi ñaanal réew mi ñaanal xulafaa u diini yi nga xamante ne ñoo fi nekk fa tabarakallahu ndax weer wi dafay weeru nangu ñaan weer wi dafay weeru jéggale weer wi dafay weer woo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala lépp lu ci jullit bu def ci aw yiw mu fulal ñu ko kon nañu góor góorgóorlu ci jàmm yàlla nañu góor góorgóorlu ci ñaan yi nañu lu ci jëm jëflante aw yiw fa tabarakallahu di leen jox daje inchaa allahu wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullah voilà donc mbokk téléspectateurs yi gis ngeen ki nga xam ne moom mooy yaa Seydaat moom naa leen à chaque fois day ñëw euh, ci émission bi ngir joxe quelques tegtal yoo xam ne am na ci biir l'islam ndax am na ci solo maa ngi nuyu nag euh, sama mbokk maa ngi nuyu sama rubrique bi ñaaw lii ah nuyu naa leen nii nga ñu baax waaw nii nga ñu baax nii nga ñu baax ci loo leen nekk ñu ngi sant yéen a ngi tàkk ba yàqu ah kenn yow tax nga ah, ba yàqu ah man tey moom damaa sonn. tey moom xiif xiif gi daf maa jàpp trop sax. tey sama kanam tey nga gën a tàkk ci émission ah. tey nga tàkk ba yàqu tey nga. vibré may jey. non tey nga vibré tey nga tàkk bay acrobatie te <laughs> góoba voilà donc euh, gis ngeen ñi nga xam ne ñoom lay àndal ci plateau bi chaque soir ñu fas yéene leen euh, li nga xam ne moom mooy rubrique yu baax mais balaa loolu dañuy dem seetaan benn bande annonce après ñu ñëwaat sur le plateau débattre ci. thank you lii tey bu ko Richard Toll amee yàlla nga ko jaarale ci soxna Khady Diaw tafsir Abdourahmane tafsir defe naa di nga jaar lu tax gis nga ku def lu baax ku def lu baax lu baax li ngay am du yem ci yow day landi tasaaroo laal réew ma yépp yàllaa tollu noonu moo tax gis nga def lu baax rekk a am solo yen waa Sénégal yéen waa adduna bi yëg leen ni yàlla ne ku jub nag sa bopp nga ko def ndax bu ëllëgee la nga liggéey lépp di nga ko fa fekk wa man dalla fa innama yadillu alayha yàlla ne képp ku topp yoonu sànku te ba sànku sa bopp nga ko def sa bopp ngay sànk waaye gars yi na leer na leer wa tadiru waziratun wisra ukhra Muhammad a ko jàng de yàlla ne amul kenn ku bari pexe bari pexe ba mën a def bàkkaar ñu yàpp ko keneen Sénégal a ngi nii dégg ngeen ñi ci kaso yi léeg-léeg ngeen dégg ci kilifa boo xam ni am na ay njabootam yu pare pour tëddal ko ca kaso ba mais est-ce que nit dina lekk kees doomam wala militant wam dem tëddal ko ku lekk yaay tëdd wala ku ñu tuumaal yaay tëdd moom la yàlla ni wala taziru waziratun wizra uxra kenn mënula gàddul kenn bàkkaar ku ne loo def yaa koy gàddu donc mbokk téléspectateurs yi euh, loolu nag ci bande annonce yi nga xam ne ne moom mooy xew euh, fan yi moom la ñuy daal di wane ci télé ak yéen seen 2STV donc nag religion lañ nekk ramadan lañ nekk donc mm-hmm. dañuy dem ba Richard tool euh, dem def fa ay conférence et c'est très normal mm-hmm. loolu nag il faut muy am ci ramadan bi lañ nekk du dëgg voilà donc dañ ciy ànd ak ki nga xam ne ne moom mooy Eva tey nag Eva laay ubbee Eva lu yow ndax fa ni da nga neex da nga sañ rafet <laughs> moo tax may yow tey merci Aïcha gis naa ce soir ah, ah takk ba yàqu yow moom xam na ngay briller ba yàqu <laughs> alors Eva tey da nga ñëwaat ci ENE comme ni nga ko waxee woon démb. waaw d' abord maa ngi nuyu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan au niveau national et au niveau international. di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen lay fekk tous les soirs fii. di kontaan bu baax ci daje ak yéen. Mhm. damay def continuité rek ci li nga xamante ni mooy ENE. Mhm. ENE comme ni ma ko waxee woon dafa bëri vertu. Mhm. mais balaa ñu ciy xuus jàll nañ dem tey nañ dem seetaan ni ah, reportage bi ñu ñëwaat ci plateau bi. Ah, xanaa nga ni lii nga defar mooy la fu bu dee modèle bi la modèle bi mooy ma koy caw waaw. d' accord li nga ko defaree ban base la. maanaam fu doon bu ñuul ak bu xonk laa mélangé nii mais instant bi munoo koo xàmmee tant que ba tant que wowul ba ñu raxas ko partie bii nii lii fu doon bu xonk bi la lii nii ak lii nii fu doon bu xonk bi la quoi xam mais nag ñoom couleur couleur répondre mais boo ko raxasee si ngay xamee ne bu ñuul la lii bu xonk la. yéen fu ngeen di jëlee fuddeen yi ngeen di utiliser. bu dee bii bu dee fuddeen bu xonk bi la dañ koy importer sa vient de la Mecque ou Pakistan wala Mauritanie wala Dubaï fa lay jóge importer lay doon ñun mënuñoo defar bu xonq ñun bu ñuul la ñuy defar bu ñuul bi tamit kii lañ koy defaree bigan ak tenzo la ñuy jël mélanger ko saa te doon bu noir bi la lay jox après ñu doon ko fuddanee mais loolu tam fuddan la quoi. waa mais amul danger ci mu nit ki. non amul danger xanaa mu doon si yaramu koo xamante ne da koo allergique. bu dee ku ko allergique la moom bu ko defee moom ça va pas aller quoi bu dee moom macha allah bu dee si kaw loxo yi la moom te allergie koo ko defoo ko dara moom du la def dara. jëlaat la bi xam rek ñun suñu xel quoi mooy loolu ñu dóor dóor modèle yi na am na yu daax yi sax sec bi nu mu demee la sax mooy loolu mais am na yenn yoo xam ne yu correct yu gën a garaaw gën a feebar yi. ma am loo xam ne ma ko jàngal loo daa nekk ci man man bu ma tiimee dara dinaa xam ne laa war a def bu sama kolo bi def noir la quoi mais bii bu xonk la waaw bii mooy fudan bu xonk bu may jugee am na damay jugee Mauritanie damay jugee Màkk Arabie Saoudite ça dépend quoi fu nekk ak yu muy jugee mais ñun xam nañ trois yëpp fu muy bu nekk dina xam ban pays la jugee. Foden Pakistan la sokkee ko maanaam Foden moom Pakistan la sokkee ko waa Pakistan ñoo doonoon ay Foden kat xam nga ñun ñii tamit sooy Fodenu sax da ngay mën a connecté wu. il faut nga boo boo naree def boo ñun ñii di doon fudankat yi sax dañuy connecté wu di ñuy fudankat yi nekk Pakistan di xool seeni modèle di roy si ñoom ndax ñoom foofu la su fudan sokkee ko Foden foofu lañ ko gisee foofu lañ sokkee ko maam yi sax foofu la Foden jógee fi dëgg la nag bu yonent yàlla Muhammad moo ne woon tey ji ku deewaalee Foden di nga dem àjjana te macha allah Foden bii nga def sa loxo bokk na ci fi rafet na de. merci waa gis nga dañu ñëw pour wane différents types yi nga xam ne ñoom ñoo existé. ci mhm. dessin fuddan du dessin yi ñu mën a def fuddan ci mm-hmm. fuddan ci loxo mm-hmm. wala ci tànk mm-hmm. motif yi bu ñu xoolee démb bi ñuy waxtaan ñu ngi naan xale yu bëri duñ ko bëgg di def mais boo seetloo sama loxo man dama def bu xonk boo xamante ni fesul te dafa rafet ndax dafa bokk ci li nga xamante ni mooy beauté te fuddan dafa nekk loo xamante ni dafa dagan comme julli na te dafa nekk loo xam dañ koy gis ci religion musulmane donc dafa nekk loo xamante ni c'est vraiment mën nañ ko n'importe qui mën na ko def donc pour wax ni xale yi mën nañ ko def mag ñi mën nañ ko def te dégg nga léegi ci reportage bi li waa ji wax daal ni fuddan ku ko ko deewaalee boo deewee dem àjjana loolu am na solo <laughs> loolu am na solo mais man eh, Eva li ma gis yow tout le temps da nga dem ci salon de beauté bi du tax lool waaw bébé chou tey dama génn gaam dugg ci marché bi rek parce que déjà may euh, nuyu euh, na euh, Binette bu ma Magna moom waroon moom day def fudda ndax moom laa ko waroon def ak tey mm-hmm. mais dañu génn tuuti ji gaam yi xoole ñi nga xamante ni parce que boo xoolee maa ngi marché HLM mm-hmm. biir marché HLM laa dem nit ñëpp wër ma ñi mm-hmm. fa toog ñëpp ay góor di def ay liggéey yu rafet di mm-hmm. def ay fuddan yu baax yoo xamante ni par exemple ci salon de luxe yi ni ñu koy defee mm-hmm. am na aussi ci biir marché bi mm-hmm. loolu moo tax ma génn gaam pour wan population bi que ni ni ko mën mën nga ko defee ci salon de luxe yi comme aussi mën nga génn dem ci marché H comme genre marché HLM par exemple ñu defaral la ko te mën nañ la defaral lu rafet loo xamante ni même chose lay doon ak li ñuy def ci salon yi ay jigéen lañ sax à dire que naar yi wala boog ñi nga xam ne dañ koy jàng ay jigéen lañ gën di doon Euh, mais fii ay góor laa fi gis ñu ñuy fuddal nu effectivement y des hommes mhm. amul woon benn jigéen ñi ma mhm. waroon ñi ma doon waxanteel ñi ko doon def ñëpp ay ñoom ñëpp ay góor lañu mhm. amul benn jigéen laaj naa leen sax ni leen yéen li ngeen di def nii est-ce ko jàng ñu ne noonu jànguñu ko inspiration la bu ñëw ci ñoom te dafa nekk loo xamante ni ñoom dañ koy pratiquer au fur et à mesure ñu koy fowe di ko fowe dañuy dem ba motif yi dañ buñ koy def day yomb te mën la defal dix motifs yoo xamante ni duñu répété benn yoon beneen bi ci topp kon maanaam dañu am inspiration effectivement am inspiration mais est-ce que cher na prix yi cher na wala. cherul cherul. Hmm. cherul. yow bi nga def ñaata la par exemple. man bi ma def xam nga rek waajee daf ma ko dafa ko sëñ Fallou ma moom tamit ak mm-hmm. équipe bu nekk marché HLM yëpp mm-hmm. déjà moom bi daf ma ko defar rek may ma ko comme li ñuy wax naan aadiya euh, ni ko mm-hmm. ko def rek may ma ko aadiya ma dama gis euh, comme ci la ñu nekk xaaral ma defaral la ndax nga jekk comme mbirum jekk ak beauté daal la ñuy wax pour loolu la ñoom ñooy gën a yombale a yombale salon yu mag yi dañu ah franchement nag defuma comparaison des prix mais bu ñu xoolee ci lieu bi parce que en général le mieux aussi ça détermine ça détermine bu ñu xoolee ci lieu bi normalement ñoom ñooy gën a yombule salon yi mais xam nga tam du ñëpp ñoo mën a dem ci marché bi par exemple toog ñu lay dessin affaire yooyu am na ñoo xam dañuy préférer cadre bu rafet bu climatisé bu tout tout ce lépp lépp nekk ci biir nga toog calmement ñu defaral la ko donc ku ci nekk daal ak fu sa poche tollool boo mënee dem ongle mania ñu defal la ba mu rafet boo mënee euh, dem Bodizane ñu defal la ba mu rafet wala nga dem marché HLM ci ñoom sëñ Fallou tamit ñu defal la rafet na yomb na te day yóbbuwaate àjjana ma yow kon di nga fuddanu eh, eh, eh, kon kon wéeroo suba laa bëgg loolu nga may laaj waaw suba laa bëgg a fuddanu kon wéeroo <laughs> suba bi àjjana rek <laughs> àjjana rek nga àjjana nga may wax de. mais day rafet day rafetaate. dafay rafet. Uh-huh. yomb bi ubbaate na neex na neex neex na trop comme ni ngeen ko waxee dëgg la. wante pour yokk si rek ñaari mbir yu ndaw yoo xamante ne mooy Kamal coiffure dafa maye deux bons. Mhm. moom tey mhm. pour ñi nga xamante ni ñoom ñooy dugg ci ligne bi rek muy góor muy jigéen ndax moom day coiffé góor day coiffé jigéen ku dugg comme ni ko Bodizene bi net Bodizene defee démb maye deux bons comme ni ko Nogay ma ongle maña aussi defee woon maye deux bons mhm. ñu ngi fi rek pour lu neex mbokk téléspectateur eh, rek <laughs> loolu du benn problème ma bëgg a yokk ci nga mm. xam ne moom ngay wax mooy avant que ñuy am institut de beauté yi mm. ah, ñi def fuddën avant que euh, xale góor yi di ko def HLM. Hmm. maire yi ñoo ko doon def ci biir kër yi. Hmm. donc fuddan dafa nekkoon loo xam ne ne mag yi ñoo ko doon gën di. Euh, di ko utiliser di ko def. Hmm. donc ci biir kër lañ ko doon def soo gisoon euh, aujourd'hui ku doon sëyi sax. yenn saa dañ lay fuddan. donc dañuy jëli mag bi ci benn kër yóbbu soit mu ñëw wala nga dem ci déplacé wu moom mu fuddan la ba mu rafet. donc nag def naa ñu bëri man xam naa ñu bëri ñoo xam ne ne HLM lañ nekk xool ci ci ci maire ñoo ko ko doon mélanger pour jox la texture bi jeunes donc ñoom foofu la doon jàngee en plus de ça jeunes dañuy recherche ñu nekk HLM dañuy def ay recherche dañuy dugg ci net bi dañuy ut ay motifs di xool di xool naari naka la liggéeyee loolu ñu doog ko ñëw indi HLM di daan seen doole comme ñu wax def seen yëf en plus gis nga boo xoolee avant fuddeen boo ko daan def mën nga jël demi journée wala nga jël toute une journée mm-hmm. maire yi jël ay bandes collantes di la ko mm-hmm. defaral modifié yëpp mm-hmm. léegi gars yi dañu jël yëpp moderniser ko gis nga lii boo koy def ça prend même pas 10 minutes donc fi nga toog nga koy defee immédiatement ñu raxas ka parce que trois couleurs moo existé mooy bu marron bu clair bi bu rouge bi wala bu noir bi yow yaay xool yow ban noo ko sentiré ak sa couleur de peau ban la adapté wu nga ñëw toog ñu defaral la ko raktak nga dem du yàgg te du jël benn temps te du jël benn temps donc nag boobu nag moom ba léegi daf daf ci des merci dama ciy xuus lu bëri. xuus lu bëri des na ci suba. ndax xam nga Foudan euh, li li mu nekk ci biir dafa bëri. dafa yaatu mhm. auparavant mairie seen loxo lañ ko doon defee. Mhm. jël ay bantu bare te rappel di ko mais léegi dama gis kii benn bouteille la jël di ko ci pàccal et tout. loolu mooy professionnalisme bi xale yi am léegi. mu ngi noonu professionnalisme bi mhm. développement bi. modernisation bi loolu yëpp mooy wane que ni. xale yi ñu ngi dox di ànd ak jamono ji ni muy doxee lépp di soppeeku ndax boo xoolee léegi lépp fa soppeeku te Fuddan tamit yemuma foofu mm-hmm. suba dinaa ñëw ak ci li nga xam ne mooy dernier jour thème Fuddan mm-hmm. muy dernier jour la semaine vendredi incha allah mm-hmm. ñëw ak yéen li nga xamante ni mooy euh, masque du corps ak Fuddan bi kon de Fafa ngay jël comme cobaye <laughs> Fafa kon moom ngay jël comme cobaye xam nga Fafa ay mbiram dafa dafa xaw a doy waar man moo tax ma koy moytu bàyyi ma moytu ko rek yaa ngi moytu ku baax nag dama war a engagé nag dama war a attaqué <laughs> voilà donc gis nga nga xam ne moom mooy évasion euh, tey loolu la leen indiloon ci euh, mode euh, ci mode beauté maanaam lépp loo xam ne ne day laal fuddan rek moom semaine bi moom la leen indi indiloon faram fàcceel la ko des na suba dina indi yeneen yi bagage yoo xam ne yéen i toog seen kër dina leen intéressé dañuy continuer nag sama gars parce que dañuy am xew-xew le 25 juillet ah li ñuy xew mooy maanaam lutte bi làmb ji suñu yëf la il faut ñu ciy wax bu baax ah, li ma nar a commenté li nga nar a commenté li ma nar ah. foofu ma taxaw ci stade ba naan ban tamba <laughs> jeex na donc kal ko foofu ñu dem seetaan élément lutte boobu ñu doog ca débat ba mu baax ayca door Modou Lo jàpp na ko ñu ngi xeex jàpp na tànk te laamagul te laamagul da ngay bëre la ilaha illallah ay waay ci lamb waay reconnu c'est notre champion c'est notre champion on le voit un peu voilà voilà Voilà. La lutte, c'est ça Vous, vous êtes Ivoirien Je suis Saraka, euh, au ministère de l'Environnement, en Côte d'Ivoire. Et vous, monsieur je suis opérateur économique en France. Je travaille dans le commerce de gros, de vin. Mais vous suivez la lutte sénégalaise Oui, c'est le sport préféré des Sénégalais et tous les Africains qui vivent à Paris. Parce qu'ils nous font honneur. Ah. Et nous, le Sénégal domine à travers ce sport-là. Sport. Et champion est venu à Paris. Ouais. Nous sommes tous contents. Mais pour, le, mais pour le, football, c'est vous qui dominez. Hein. Ouais, mais oui, nous sommes les champions. N'oubliez pas qu'on est, est les champions d'Afrique. On est tous. Football, voilà. voilà. On est un champion, champion. Un champion. On est un champion. Ok. Un champion. Ok, merci. Allez, merci. Bombardier, boo gisee lii nan lan lay def nit. waaw Bécaye maa ngi lay nuyu man yow xamula ne fii sax sama waa ji. dafa am benn affaire bu ma fi indi. dafa am ñaar ñu dëkkante Sénégal. ma ne il faut ma ñëw ma fekkee seen conférence fii à Paris. waaw daa mel ni kon euh, Bécaye li ñu fi indi moo la fi indi. Mhm. muy événement bi ñëpp di xaar tey. Mhm. muy Bombardier Modou Lo mhm. moom la ñëpp di xaar gis nga Paris da ngay dox si li li gars yi dañ xam la boo ko war a mën a may doomu aadama waaye sport moo koy may en général la euh, moo ñu ko may mhm. man ma lu ma am lépp defe naa béykat damay wax lamb ma ko may mais yu bari donc wuu def naa réew yu Euh, Grèce Turquie Russie États-Unis Italie yëpp def naa yëpp. Afrique am nga réew yoo fa def. Afrique waaw dem naa Bénin dem naa Gambie dem naa Guinée Conakry Maroc Algérie Tunisie waaw. Mm-hmm. boo xoolee loolu lépp réew yooyu yëpp nga dem làmb la kon làmb fan la jëm. waaw làmb daal euh, Bécaye comme ni ma koy waxee man euh, actuellement sama xol mu ngi commencé di sedd di dal. Mm-hmm. parce que lancé bi mu jël suñ ko bàyyiwul. defe naa làmb man sama combat yi ma doon def yëpp tey sama combat li ma doon gën a bëgg bëgg sama àdduna mooy làmb ñu yóbbu ko ba au niveau international. tey yaa ngi dajeek ay Ivoiriens si mbedd muy ñu xàmmee la. dëgg kon tey euh, mën nañ ko man man mën nañ jël si même lancé bi ba tey. pourquoi pas ñun essayé nañ Paris benn combat. yeneen mbër ñëw def ko yeneen mbër ñëw def ko ba nga xamante ni tey mbër fu mu génn si àdduna bi dañ koy respecté. lan moo war a doon bu boobaa nag léegi taxawaayu nag par rapport ak discipline par rapport ak ñi lay seetaan. taxawaayu mbër d' abord yàgg naa ko wax mbër dof du ko doon faut ñu gën a civiliser parce que tey euh, boo civiliser dafay yokk sa valeur. comme on dit alors monsieur ñu changer tuuti comportement yi parce que dama am baat bu may dégg tout le temps loo wax ñu ne ah non mbër ay dof lañ mbër ay dof lañ vraiment man baat boobu su ma ko déggee daf may damay am lu ma naqari mbër yi war nañ dem ba nga xam dañuy représenté tey si réew mi loo xamante ni fi ñuy nase ak fi ñuy noccee mais loolu li koy may mooy ñun ñoo ko gën a war a taaral jox cër suñu bopp d'abord parce que man kenn du ma dégg si yu ndaw ndawaan yu ñàkk fayda yooyu alors moo tax ñun ñëpp nañu bokk ndey bokk bàyyi joxante loxo Euh, lamb jëm si kanam. c'était pas la première fois mais gisaat dans la talent d'Afrique nga taxaw biir canal waaw loolu tamit ci luy yokk lamb la normal télévision extérieure yi. waaw ba xam nga tey ku la waxoon si àdduna am na suñu maam yi ñooy boo leen yeewoon ne leen tey ay signature contrat ñu ngi koy def France. man maay mbër bi njëkk a def émission canal talent d'Afrique mhm. mooy talent yi nga xamante ni ñoo gën a siiw si année boobu la ñuy invité bi si des mooy mas naa ko wax euh, benn mbër ma ne ko ñun foog ñu jàngaat jàngat bi xam mooy lan olof ñun ñëpp ko namp dégg nañ ko Sénégal mhm. mais Sénégal la yem mhm. jàngat bi mooy nañu nañu nañu jéem di wax yeneen langue yi pour dëkk boo tukki mën a wax langue boobu mhm. man bi may invité canal dañ doon amay doute nee nañ parce que mbëri dañ leen wax dégguñu français may leen non non non waaw c'est-à-dire li ci ëpp exactement may leen loolu amul ma ñëw ñu def émission boo xamante ni presque une heure de temps la français ñu ne ñun ñu am si beneen vision nag ñoom ñu ne xamuñu woon ni mbër yi comportement bi la parce que dañ wax ni mbër yi ni ñu mel may leen non non non parce que des fois image yi ñuy yi ñuy montré ak vrai visage li war a doon mbër wanaguñ leen ko. ba ma la nee léegi ñu ñëw ci làmb bi nga xam ne moo tax nga ñëw fi muy yow ak Modou Lo boo supporteru Modou Lo yow looy wax supporteru Modou Lo boo amee lokk bon man actuellement amu droit wax ak supporter Modou Lo. dama leen non war nga ko jox benn wax ñoom nañu gunge seen mbër nañ ko supporter parce que samay supporter laay waxal nañu dalal seen xel te xam ne seen mbër seen athlète dafa am fu mu teg tànkam am fu mu teg bëtam te fu lóor fu wóor la ko teg lépp lu mu man ngir bëggal leen bu soobee yàlla dinaa ko def. na seen xel dal bu ñu werante bu ñu xuloo ku leen ku leen ku leen oo nañ ko wax ba le vingt cinq si guddi. mbër mu yoroon nenam. nen ba rëcc ko mu foraat nenam ban lan moo mën a tax nen ba yàgg ci moom ba di toj. xam nga boo ko yoree fekk say loxo niin mu rëcc la war di toj boo ko foraatee kol kol crédit. Il est grand, fort, avec 135 kg de muscle, colosse ne recule jamais devant l'adversaire. Il est surnommé le B-52 de Mbour Bombardier le roi des arènes on l'appelle Kharagne le technicien l'artiste grâce à sa popularité il est devenu un phénomène il a battu les meilleurs de sa génération Modou juillet stade Demba deux gladiateurs à en découdre pour le titre de roi des arènes. donc mbokk téléspectateurs yi loolu nag mooy li nga xam ne mooy Bombardier Modou Lo euh, fas yéene jonkante euh, le 25 cinq 25 juillet léegi 25 boobu nag moom yow nga ne loo ciy def. Fafa maa koy présenté yow tamit nag. Fafa man dégguma euh, pa pa combat bii nii sama combat la man tamba léegi. Modou Mbaye bàyyi na ko. man ak Bekaay Mbaye ñoo koy liggéey Bekaay Mbaye nee na man la jur léegi. Ah. juratul Modou Mbaye. léegi doomu El Hadj Ndiaye la. ah ma foogoon démb yaa nekkoon doomu Elan Ndiaye. Elan Ndiaye Elan Ndiaye jubóo wuñ de. Ah. man Elan Ndiaye mais fu ne nii nee na chemise film nga sol. waaw nee na chemise cinéma laa sol. <laughs> cinéma nee c'est pas du cinéma. am na ku may bëti moom sax ah. bu garaaw. ma dem kër Ismaïla Lo Tafa ak Dada defal ma ndogo bu yéem ma leen di nuyu. ñu ne ma nuyu leen El Hadj Ndiaye nee ah, ko nuyu nga ko bëri histoire nag. Ismaïla Lo ni ma ko ki yoonu yaa nga mel mais xol bi dara nekk ci nag. xol bi dara nekk ci nag. koo mere woon koo mere woon kan. non dama leen ne nuyu ngeen ku bëri histoire. ah nuyu ngeen ku bëri dama nuyu ngeen ku bëri histoire ku tàng. Mm. El Hadj Ndiaye. ah Ismaël Lo noonu noonu mel noonu la yàgg mel noonu la yàgg mel waaye nag xol bi dara nekk ko xol bi dara Ismaël ni lay waxee. Ismaël Lo ni lay waxee. Ah, wax ju bar la yor Ismaël Lo wax ju bar la yor. Mm, waaw wax ju bar papa mu engagé Ismaël Lo. kii non eh, moom kii fii tam romb na ñi ko entré sax xamuñu lu tax ñu entré ko man léegi xam la laa bëgg xam Aïcha uh-huh. léegi moom mooy yor micro central bi di El Hadj Bécaye Mbaye wala yore waaw wala Modou Mbaye micro trottoir bi mu yor pour xool nit ñi si niñ koy uh-huh. dundee uh-huh. man daal faafa bëgg naa xool position ci biir làmb ji le 25 c'est une bonne question xoolal sama loxo bi waaw gis nga sama loxo bi nii man maay balayé <laughs> balayé ci biir stade bi di xool faarist yi di leen interroger di leen wax lu baax di jël image ñu <laughs> jël kàddu yi. Ah. ñëw di leen ko jébbal fii ci 2 loo xam ne suba teel ak 2STV ñu ko fay def rek. Mhm. man maa koy jël ñu jébbal ko téléspectateur yi. xanaa di dim nga. moom kay fële ni il faut ma diw ji. <laughs> il ah, <laughs> euh, ñooy daal di organiser làmb jooju le fii ci Dakar Ndiaye incha nag ñu fas yéene koo teew euh, comme Fafa li mu wax rek neen dafa na raatale lépp loo xam ne mooy stade ba donc kuy ñëw ku ne na nga préparé xaar faafaa ci buntu ba ndax ñëpp la fas yéene indi fii ci plateau after dangour ndax xam naa ku fa nelaw wala ku fa am noo fa deful dina la fa weer fii ni ma lay indi na ni ma lay indi <laughs> ji moom dina mel ni sonkoronko ba ca Banjul bu kenn des mhm. États-Unis Europe Lisbonne mhm. Strasbourg Sunderland eh. <laughs> na ñëpp ñëw ci lamb ji ñu toj àdduna parce que suñ yëf la nag Sunderland Sunderland xam nga Sunderland waaw xamuñu mooy Angleterre déggal loolu xam nga moom dafa branché nag ngay gis nii eh, dafa xam dafa eh, nang te de eh, <laughs> mu ngi noonu donc nag comme faafa nee na damaa di faa ma diw damay dem daal di ci boutique bi uti fa diw ndax diw yaa nga fa ak Good Life Store ak ki nga xam ne moom mooy Patisen ci produit alimentaire yooyu nag nañ dem dem seetaan une page de pub ma daal di ubbi boutique bi volume de tous vos passes Internet. Composez le dièse 1234 dièse et profitez de deux fois plus d'Internet au même prix pour surfer encore plus longtemps sur le meilleur réseau 3 Plus du Sénégal. Ramadan Moubarak. Le partage change avec Orange, la vie change avec Orange. Offre valable jusqu'au juillet Quand on refait le monde entre amis. besoin de souffler. Quand on a un peu de temps à s'accorder. Quand on en a envie. Quand on veut un bon café, on doit pouvoir le boire à tout moment de la journée. Découvrez le plaisir d'un instant café avec le Café Kango. Kango, le bon goût. nokkos yokku cafka baaral marine doreel booy lakk safal sàppali marineel dooreel wala yokkal cafka Gamo Adja naturel épice di leen di gunge ci seen bépp xeetu togg mbokk téléspectateurs yi comme li ma leen ko waxee rek dañuy daal di ubbi boutique bi ndax boutique bi nag am na ñoo xam ne soxal na leen bu baax a baax a baax di ci ànd ak suñuy partenaire comme ki nga xam ne moom mooy Patisen parce que Patisen saa ma ko taay di wax nee naa leen ñoom ñooy number one fii ci Sénégal Patisen lépp luy produit alimentaire ñoom dañ ciy daal di yëngu produit alimentaire yi nag dañoo varié de par ses marques ndax marque nekk rek Patisen euh, jagleel na ko téléspectateurs yi jagleel na ko askan bi euh, Patisen nag moom day liggéey li nga xam ne moom mooy kangu café kangu café nag euh, fan yee maa ngi ci woon wax ci lu am solo donc xam ngeen li nga xam ne moom la kangu kafe euh, di composé am na li nga xam ne ne moom mooy aja mooy maanaam gaam aja bi am na aja tomate am na aja épice am na aussi li nga xam moom mooy vinaigre aja yi ñaari vinaigre yi am na aussi li nga xam moom mooy chocopa leen euh, pâte à tartiner la genre chocolat xam ne xale yi koy bëgg mag yi dañ koy bëgg am nañ aussi moom la ñuy naan ci kaw plateau bi euh, maag sama moom la ñuy naan chaque jour ci kaw plateau bi am na nekk donc kangou soo ko jëndee am na parfum bu nekk soo koy utiliser day mel ni euh, jus am na li nga xam ne ne aussi moom mooy beurre aja moom it nee naa leen moom it beurre à tartiner la pasteurisé moom it beurre bu neex la bu am solo boo xam ne soo ko utiliser da ngay sentir goût bu neex donc nee leen nag moom nag gamme bu mag la euh, pâtissière di utiliser euh, ci produit alimentaire mais tey dañuy dellu si waxtaan ak yéen ci aja lu tax may wax ci aja parce que dañuy dimbale li nga xam ne moom mooy korité ak li nga xam ne chaque jour femmes yi ak restaurant yi ak gargote yi ñu ngi togg ndax ku wax weeru koor wax cuisine ñooy ànd ndax guddi gi macha allah da ngay gis plat yu am maanaa yu ñu teg ci kaw taabal yi euh, bëccëg bi da gis femme yi wala képp koo xam ne day fas yéene togg day dugg ci marché bi lijjanti fruit yu bees euh, lijjanti légumes yu bees lijjanti poisson yu bees lijjanti nag ay ingrédients yu bees te ingrédients yooyu noonu dañ koy différencier ci seen i qualité ah ci seeni i texture ak li nga xam ne ne moom moo composé ingrédients yooyu nag ñu ciy ñëw ak aja aja nag moom da di euh, bouillon bu am solo bouillon bu neex bouillon boo xam ne ne vraiment day dooleel togg Euh, da koy jox arôme bu neex jox épice yu neex aja nag am na deux façons am na aja épice am na aja tomate man nag nee leen saa su ne mën a dugg fu ne Adja tomate soo koy togg euh, man lépp loo xam ne c'est fait à base de tomate maanaam ngay togg euh, suppu kanja yenn saa yi nga def ci tomate euh, donc mën nga ko cee def yenn saa yi ngay def ay lépp loo xam ne ne aliment la rek fait à base de tomate nee naa leen man ceebu jën bu xonk laa ci bëgg bëgg naa ko ci torop bëgg naa ci bolo ñees ndax ñëpp xam nañ ne bolognaise sauce bi day daal di xonk am viande hachée bi donc ajaa da ci am rôle lépp loo xam ne rek nit da koy lii da koy togg ak tomate Adja tomate am na ci wàll ki nga xam ne ne moom mooy Adja épice Adja épice nag moom fépp lay dem ndax Adja épice soo ko déggee mooy épice c'est-à-dire épice nag moom la ñuy wër ci togg moom mooy accentuer li nga xam ne moom mooy goût toggu bi donc Adja épice moom day dugg fu nekk Adja Adja yi nag euh, seen composant yi mooy day am ay ay maanaam mooy laaj day am oignon oignon nag mooy maanaam soble day am li nga xam ne ne moom mooy poivron poivron maanaam mooy kaani salade moom lañ ko gën a xam ci turu kaani salade ak laurier laurier mooy feuille laurier yi nga xam ne soo leen demee ci marché bi ah, da ngeen ko fay fekk laurier mooy li nga xam ne day génne euh, guru togg yenn saa nga togg ba mu sa ba mu sa si yàgg safut nga dugal ci feuille laurier pour mu génne ay guru donc ingrédients yooyu yëpp nekk ci biir muy soble muy laaj muy kaani salaat muy laurier moom la ñu euh, composé ak yeneen i yoo xam ne ne mu ngi ci biir aja pour defal bouillon bu am maanaa boobu noonu donc aja nag mu ngi nii comme li ma ko jegeel am na plusieurs façons am na grammage yu bëri am na bi nga xam ne ne moom mooy 12 grammes bi am na bi nga xam ne mooy 15 grammes bi am na 75 grammes am na aussi pour yu mag yi maanaam pour commerce yu mag yi am na 1 kilo ak cinq kilos donc loolu mooy pour commerce yu mag yi wala utilisation yu mag yi maanaam ay ay ay boutique wala ay ay restaurant yi nga xam ne dañuy togg dañuy utiliser aja lu bëri donc am ngeen un kilogramme bi ak cinq kilogramme bi ñi nga xam ne nag mooy restaurant yi gargot yi nga xam ne si kër yeeg yooyu mën nañu utiliser douze bi quinze grammes bi ak soixante quinze grammes bi donc loolu nag moom euh, neex na ci yéen aja nag loolu la leen jegleel question yi may posé tey yomb na neex na yomb na question yooyu pour lan la pour ngeen am euh, teraanga yi pati seen jagleel leen teraanga yi mooy lan mooy euh, pañe dox daje bi nga xam ne lépp a ngi ci biir mooy euh, siwo yi mooy paan yi mooy lave-mains yi mooy li nga xam ne ne aussi mooy saaku ceeb yi Jim Production ak la 2STV ak pati seen collaboré daal leen offrir ay sac de riz par jour donc loolu am na maanaa question yi mooy lan mooy yan lan ñaata différence ajaa moo am maanaam ñaata ajaa moo am ci gàttal pour ngeen xam question bi ñaata ajaa moo am su fekkee ne 10 la ngeen ne ma 10 ajaa la su fekkee cinq la ngeen ne ma 5 ajaa su fekkee benn ajaa am ngeen ne ma benn façon ajaa am. Euh, deuxième question bi euh, mooy lan la ñu mën a préparer ak ñaari ajaa yi ngeen may fas fas seenee limal donc wax naa leen ñaata euh, ajaa moo am. lan ngeen lan la ñu mën a togg ci ajaa yi ngeen ma fas yéene limal euh, loolu nag moom laay xaar ngeen wax ma fii benn bu ne su fekkee ne cinq la limal leen ma cinq yi benn bu ne ci fan laa ko mën a dugal ci togg bi euh, su fekkee ne ne aussi xam ngeen prix bi ngeen wax ma ajaa lan lay jar ci boutique ba parce que ajaa aussi am na tablette bi am na cube bu ndaw bi donc cube bu ndaw bi wax leen ma lu muy jar ci boutique ba tablette bi aussi wax leen ma lu muy jar ci boutique ba maa ngi leen di xaar nag euh, mooy numéro bi ngeen di wootee pour mun a dugg fii en direct ci seen plateau after ndogu euh, fas yéene am teranga yu baax yi nag ndax teranga yi man bëgg naa ci xam naa ne yéen ñi jàkkaarloog man bëgg ngeen ci donc lii mooy Adja lii mooy Pati Sène euh, lii lañ leen jégleel tey donc damay continuer dem ci ki nga xam ne ne moom mooy Good Life Store Good Life Store da di euh, société boo xam ne nag la dañoo jëlee seen produit euh, fii ci États-Unis su ma leen waxee made in USA yi xam ngeen ne maanaam euh, pays de l'oncle Sam fa la bagage yi jóge xam ngeen ne pays de l'oncle Sam nag lépp lu fay jóge neenaa leen dañ koy conditionné ba mu normal maanaam dañuy xool norme yi parce que balaa produit jóge États-Unis normes yi la ñuy étudier normes yi la ñuy vérifier est-ce que produit yi baax na produit yi false la wala du false moo waxee false mooy maanaam faux États-Unis ñëpp xam nañ ne ay false ak yooyu amu fa amu fa place donc lépp lu États-Unis yéen déjà xam ngeen ne wóor na donc nag waa Good Life Store dañ leen indi fii ci plateau euh, after ndogu pour jégleel leen seen i produits produits yi comme d'habitude ñu may def nee naa leen couche bi nag day intéressé maman yu bëri euh, parce que couche dafa am solo ci xale ndax ci couche xale bi mën na cee fanaan euh, nelaw nelaw yi neex wala mën na cee ñàkk ay nelaw ndax am na nooy coucher sa doom da koy booy da koy xasan ba moom du nelaw minute bu ne muy jooy ngay jug di changer loolu nag dakk na loolu jeex na ndax suprême couche ñëw na jóge États-Unis ñëw euh, dimbali li nga xam ne moom mooy maman yi dimbali ñi nga xam ne moom mooy nunu yi dimbali ñi nga xam ne ñoom ñooy yor bébé yi moom soo ko couché sa doom du senn du gaaw a fees day absorbé maanaam li nga xam ne ne moom mooy euh, lépp luy xale bi di def par guddi wala par bëccëg da koy absorbé ba mu baax donc maanaam xale bi moom da ciy am vraiment euh, nickel chrome daal li ñuy wax da ciy kontaan di ci dox di ci ñëw di ci fanaan di ci yeew amul benn problème donc suprême euh, couche moom moo nekk noonu ki nga xam ne nag moom mooy listerine de bouche bi nee naan listerine de bouche bi man dama ci daal di def focus tuuti parce que listerine de bouche dafa am maanaa dafa am solo solo bi mooy lan dañuy woor ba ngoon suñu wooree ba ngoon on a tendance à def li nga xam ne moom mooy regroupement xam li ma leen wax after ndogu yéen da ngeen koy koj ci ngeen def ay groupement ay regroupement toog seen i salon wala seen i ëtt donc noonu yéen a ngi waxtaan yéen a ngi jeu yéen a ngi reer wala yéen a xam li ngeen def damay bëgg nag ngeen di jël euh, di utiliser listerine de bouche daf leen di permettre bés boo leen di wax ak kenn wala di toog ci daje soo leen wax doo leen rus soo leen di wax doo leen jël seen loxo taf ko ci seen gémmiñ déedéet loolu jeex na ndax listerine ñëw na dafay tax ngeen koy galaxndikoo soo leen ko galaxndikoo nag incha allah di ngeen am alem bu nga ak nit ñi amul nëbbatu amul complexé donc loolu la liggéeyu Listerine am nañ aussi li nga xam ne ne moom mooy euh, diw yi maanaam lait de corps yi les jergen bi ak ultra moisture bi euh, moom nag moom nee naa leen li ma ci gën a neex mooy ñoom ay protection UV lañ maanaam dañuy protéger contre les rayon UV ndax instant bi tàng na nous some en période de chaleur rayon solaire yi mu ngi agressé suñu peau euh, di ñu may ay ay irritation yoo xam ne ne war nañ koo mën a ñun euh, protéger protéger bi naka la dañuy utiliser produit yi nga xam ne ne dañuy am protection solaire maanaam contre les rayons UV donc ñaari lee de corps yi nga xam ne moom la Good Life Store di leen jegleel ñoom euh, dañ ko cee am ci biir composant yi aussi ñu fàttali li nga xam ne moom mooy eau de Cologne yi eau mu ngi nii ginnaaw ñu am couche bi ñu am eau de Cologne am saabu bi nga xam ne nag moom saabu relaxant bi saabu relaxant bi li ma ci neex xam nañ ne képp soo soo nit ñëpp suñu euh, ndogoo ba pare dañuy sodd soo leen seetaan ne after ndogoo ba pare da ngeen bëgg tëdd pour mën a am une nuit paisible nuit boobu nag soo leen ko bëggee dangeen ngeen sangoo li nga xam ne moom mooy euh, gel bi ànd ak euh, mante mante boobu nag comme frotté rek yenn saa yi nga sonn di woo frotté jaratul di woo frotté saabu bi soo leen ko jëndee incha allah soo leen ko sangoo da ngay sentir aisance sa yaram da gis sa yaram di glisser di bàyyi da ngay tëdd rek daal di nelaw donc loolu dara fayu ko loolu li nga xam moom la saabu bi def donc gars yi nag gis naa ne toujours ñu ngi may euh, ñu may interpellé ci balleri trois ballerines bi ak li nga xam ne moom mooy tee diabète ci yeeg tee cholestérol yi trois ballerines yi nee naa leen c'est prouvé parce que ñu bëri testé nañ ko ñu bëri utiliser nañ ko gis nañ ci njëriñ am na ñoo xam ne dañoo pataamel ni man bañ ko naanee macha allah gis nañ ci njëriñ gis nañ ci wàññite maanaam suñu doon pesé 75 kilo nga gis dañuy ndànk-ndànk ñu ngi pesé 70 kilos euh, kilos ba 60 kilos ça dépend nag ci ni nga koy utiliser soo koy utiliser day am ay instructions yoo xam ne mu ngi ci biir boîte bi soo ko suivre à la lettre incha allah di am résultat bi nga bëgg ba nga utiliser produit boobu ñu continuer aussi ci li nga xam ne moom mooy thé maanaam euh, thé yi ngay naan pour cholestérol bi ak diabète bi ndax euh, weerum koor dañuy lekk ba suur taabal yi macha allah day fees lépp day nekk ci biir engrais yëpp taxaw aliments yëpp taxaw soo lekkee ba pare soo naanee ba pare balaa ngaa tëdd nga naan sa thé bi nga xam ne day lutter contre la diabète et le cholestérol nga daal dem tëddi doo indi kenn problème doo indi sa bopp problème loolu la Good Life Store indil ak ndox yaa ngi nii ndox yi nag moom ay eau minérale lañu euh, eau gazeuse boisson énergétique yi ah euh, chewing yi nga xam ne nag pour digérer États-Unis la jóge donc yenn saa mën ngay bëgg di waxtaan yor sa chewing di ñàpp ñàpp ndànk rek ci biir ci biir gémmiñ donc loolu lépp la leen indil fii suukaru diabète aussi ñu ngi fii pour diabétique yi suukar baa ngi fii waa Good Life Store ñoo leen ko jegleel donc nag mi ngi noonu lii mooy boutique bi boutique bi nag yeneen yeneen a ngi fii ndax li nga xam ne moom mooy bon yaa ngi fi bon body zen yaa ngi fi am na yeneen bon yoo xam ne ne aussi Eva ñu ngi leen ko jegleel euh, ci institut de beauté yi ñoom ci plateau bi lañ bokk ndax nee naa leen képp koo xam ne ne yaa ngi indi sa yëf li ko mayee fii moment de partage la ñu wax mois de ramadan la ñu wax dañuy jàppalante di dimbalante di mayante donc euh, boutique bi loolu moo moo tax mu ubbi bagage yaa ngi fi euh, bon institut yaa ngi fi saaku ceeb yaa ngi fi euh, saaku dox daje yaa ngi fi li nga xam ne ne moom mooy paan yi ak siwo yi aussi ñu ngi fi dama leen di xaar ci li nga xam ne moom mooy 88 628 69 69 ma dellu siwaat ci boutique bi ñu ubbi ko ñu daal di defar ba mu baax léegi nag dañuy dem seetaan euh, benn élément bi nga xam ne moom la Boka Condé daal di def ci excision soo leen seetloo démb wax naat waxtaan nañ ci tuuti léegi nag bii pas dafa am beneen partie bi nga xam ne ne ñoom ñoo wax ci excision nañ dem seetaan lool lan la ñu dog ko débattre maag sama gars ci plateau bi ay jigéen yuy xarafal lañu tàccu ñu leen di tàccu nag firndeel mbégte bi ñu fa teewee woon am gannaaw ba ñoom ñi nag exigence yi wax ni bàyyi nañu loolu ñu doon def. daaw laa géejee def li ni mel waaye léegi moom jotuma ko def ndaxte gis naa ne nag bëri na ay gàllankoor. ca dëgg-dëgg nag xarafal xale jigéen ñi ba léegi nag ñu ngi koy def fii ci du ONG USU ànd ci nag ak intact xalaat ne nag faaw ku ñu gën a ñaax asken wi. jaarale ko nag ci njàngaleem islam ak lorangi bi jëfin yu nu mel di jur ci wér-gu yaramu jigéen li gën a bare ci sëriñ yi dañu ne loolu euh, sunna la tel tel te dañu avancé saa ba euh, dafa am ñu ne euh, jigéen bu xaraful day daay xasan bu toggee bu lekk bu jullee yàlla du ko nang parce que dafa am cobe te loolu yëpp wax la Euh, teguñu ko fenn tegunu ko ci benn xadis teguñu ci benn euh, ci alxuraan. xarafal bokk ci yenn ci métiteel ñu teg jigéen yi fii ci du nag ñu bëri ñu ngi ciy loru. jigéen bi ñuy jongal kooku li ci gën a bëri wasinam day jafe te jafe-jafe wasin boobu mooy tax ginnaaw bu mu wasinee ba pare mu xëpp deret wala mu am loo xam ne moo xotteeku ci moom foofu di xëpp deret walla butitu njurukaay bi si boppam sax yenn saa yi day toj. waaye yi mel ne euh, du ñeen di jàppee parce que ci bi bokk. ci jamono ji passé sax am na ci fukki jigéen ak ñaar yoo xam ne jëwee nañ leen fii région de Kolda yóbbu yeen hôpital général bu Grand Yoff ci ndimbalu professeur Maguette ak équipe am waa urologie opéré nañu fukki. jigéen ñi bàyyi jëfandikoo mel nag di ñaan ñu jàppale leen ngir ñu mën a yëngu ci yeneeni activité voilà donc gis ngeen ki nga xam ne moom mooy élément bokkaakande boobu noonu euh, ci excision yi ndax ñi nga xam ne moom mooy femmes yi doon def ñu doon pratiquer excision yi ñoom ñoo manko ne jeex na ñoom dañuy arrêter pratique boobu ndax xam nañ ne c'est pas c'est pas une bonne pratique donc du coup ñoom ils arrêtent ils ont ils ont décidé vraiment d'arrêter mm, ay ay ay ay excision moom pare nañ ci alhamdulilah macha allah sant yàlla sant nañ ci yàlla seen bopp daal ñu saluer ñu saluer ko mm-hmm. c'est vraiment mm-hmm. bien sûr daal eh, eh, Aïcha comme mhm. léegi ñoom ñi ko doon def seen wàllu bopp nee nañ mhm. bàyyi nañ jeex na bilaay alhamdulilah yàlla takku nañu ba dëgër daal ñoom dootuñu ko defaat ñoom ba dëgër daal loolu lañu wax baaxul waay ah dafa waar waay dëgg la voilà donc euh, mu ngi noonu élément boobu on remercie Boka Kandé de passage moom mi nekk ci rédaction bi ma continuer nag ak Fafa bi nga xam ne moom moo mujjee daaneel Fafa xam nga yow euh, gars yi dañ lay bëgg di gis parce que nee ngeen dañ dañ lay daaneel ñoom da nga leen moom <laughs> mais man dama simple gisuma succès quoi moo tax moo tax <laughs> noo defanteeg menuiserie métallique bi dem defanteeg moom lu baax comme d'habitude rek mhm. seeti ko naaj bu tàng jër tamit xaw ma nu reportage yëpp naaj bu tàng laay dem xool gars yi ni koy dundee waxtaan ak moom xanaa ñu seetaan élément bi rek moo wax ñu ñu ngi ko dundee ci weeru mhm. a yaatal bi nag ngeen koy dundee ci weeru koor gi. waaw ah, weeru koor bi sant yàlla rek fekkee nañ ko si jàmm mais metti na quoi parce que tamit xam nga ak safara bi nii nga tiim ko nii ci suba ba léegi lekkuloo naan loo metti mais tamit sant yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax vraiment waaw euh, à xanaa affaire yi moom xam nga affaire kër yi moom seer na trop bu ñu mënee jàppale ci marché bi tamit aussi xam nga xaw na doy waar trop parce que jigéen ñi ñu ngi koy jooy rek sunu jabar ay jàmbaar lan de dañu sonn trop yow góor yow bu manqué dara ba nga ni bàyyil ma dem marché sax boo demee nga xam ne ñoom ay jàmbaar la bu ñu mënee jàppale ci loolu tamit dawal ci yërmande nii comme que ci weeru yërmande loolu nekk ñu wàññi tuuti dund bi loolu na ci am solo de mais gars yi dañuy yokk rek te amuñu contrôle de prix. yow est-ce que defal nga xéwal gars yi sa client ñëw ci weeru koor bi. man sama liggéey aw ma problème mu weeru koor ak weeru koor parce que nit ku a baax ni lii ñu fii la mais danga parce boo xasee nekk handicap sax boo ñëwee fii ak loo mënti indi di ko ñëw aussi nga fay mais mos na dal mais jour nga ñëw rek di liggéey si koor gi jàpp la nga sonn ba bëgg a dog mos na la dal fii ma toll nii sax sawaay pare naa ci man pare laa ci def góor góorgóorlu nii rek mais taxaw bu dëgër sax mënu ma ko noonu ma toog yaa ngi ko bu dee fekk alors Fafa yow menuisier métallique yi tey noo defanteeg ñoom ba defoo comme ni nga def ak menuisier non tey defuma leen noonu tey ah. dama dem waxtaan ak moom tranquillement xool ni muy dundee métier ci weeru koor gi uh-huh. waxtaan si ak man nag dégg uh-huh. ñoo ko déggandoo uh-huh. métti na trop nag comme ci benn métier yombul métier yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp a métti c'est que nag Sénégal ay jàmbaar fi ne ay góor parce que mooy yi nasaraan yi am bay seen liggéey di yomb ñu amuñ ko ci naaj bi la ñuy nekk ay verre yu baax sax la ngay gis duñ ko am mhm. te ministère métal dafa nekk ñoom dañuy suude mhm. étain boobu noonu ñuy suude ni muy reflet wu étain boobu di kii nii waaw étincelle yi mhm. day yàq bët day yàq bët boo ci gisee ñu bëri seen bët day yàqu buñ jëmee mag day seen bët day yàqu loolu moo ko waral mais tamit bëgg a daan sa doole tamit day tax gars yi dañuy assumer seen responsabilité dañuy jël ay dañuy engagé wu yaa ngi dégg dugg ci lu ne te sénégalais moo mel noonu sénégalais moo am jom moo am jom <laughs> donc si dañoo jomal. ils sont lan jomal moo jomal. Hmm. noonu lañ mel. d'accord ay dégg gis nga. koor gi metti na yaa ngi dégg ni mu ko waxee noonu nee na moom dog la bëgg fu ne ni mënatul dara dara dara ci koor gi. nee na ma xool mu koor gi mënatuma. Hmm. damay kii sama tànk yëpp fa damm. <laughs> mënatuma def dara. waaye malgré tout ça. mi ngi góorgóorlu mi ngi liggéey mi ngi waar. Hmm. mi ngi daan dooleem. ministre de l'Immatérialité bi nekk liggéey boo xam ne c'est un peu professionnel. c'est un peu professionnel dafa professionnel sax. dëgg wax parce que boo gisee buntu yi ngi def. Mhm. boo gisee buntu yi ngi def ak sécurité bi muy àndal. Mhm. ak xarañ gi muy àndal taar gi muy àndal set gi muy àndal liis gi muy àndal nga xam ne ñii seen métier dañ ko maîtriser. Mhm. waaw boo gisee li ay décor ay décor yoo xam ne c'est extraordinaire ay fenêtre ay buntu kër koy suude bu dañ koy xoos a mel ni nekkul fa am na suur bu fa am waaw day liis day liis ba day mel ni loo xam ne machine oo defar te lépp loxo moo ko defar comme soo comme sax kër yi mhm. euh, pour ñoom suñu defulee euh, ne moom mooy métallique menuiserie métallique rek du rafet parce que day day briller mhm. day naay sa ay motif ma ne du rafet du rafet non gars yi dañoo mën seen liggéey ah, ah, dëgg la sénégalais ouvrier yi dañoo mën seen liggéey maçon mhm. menuisier mécanicien ku la ki teel yëfam rek nga xam ne dëgg lépp dëgg la dëgg la man nag ah. ñii fett fett noonu su ma ko rombee damay daw. du lakke nag. Ah, du leen lakk ñoom waaw. affaire étincelle dafa nekk affaire boo xam ne bu dalee sa kaw rek day wàccaat. Mm. dañ ko ah, liggéey de telle sorte que bu étincelle yi dalee sa kaw nii day wàccaat. Mm-hmm. waaw du la lakk quoi waaw bu génnee ci air bi balaa moo def. deux secondes ci kaw day fekk mu fay ba bu laal si yaram bi rek day kiyaat moo gis nga gis ni ñuy suuree mu daan cas di laal seen yaram bi ah. tudd leen déranger du lakkee quoi moo tax mm. mais nag buñ suuree ba pare fi ñu suuree mooy tàng suñ culee ba pare day tàng boo fa tegee sa loxo rek ah bar saxul ma toom dee nga jëm da ngay ñor de dibi dee ngay xëy xam nga ko tegee dibi ngay xëy de wala wis ah, baax na merci duñ kenn monsieur taluñu ko ah, <laughs> mais mais lay lay jëf jëfi moom noonu noonu bu dalee sa kaw day wàccaar garaaw kon jaratul may daw naa taxaw rek del taxaw bu daw même man dama doon daw ah parce que soo gisee affaire bi da lay xaw a ragal étincelle da lay xaw a ragal lool da lay daw sa daw ah taxaw ma taxaw kon lu ma ci góobee yow yaa koy gar noonu mu koy garee ëpp na yow yaa koy gar ma duma jël risque boobu Aïcha doo ko jël duma jël risque boobu c'est pas sûr ay waxu faafa. Ah, du sama bakkan ngeen maa gëmul. man de gëmuma duñ jël risque ak ah, yow. comme gëmu ma téléspectateur de TV ñoom gëm ma xam ma seen problème la dëgg la gëm ngeen ma tëdd. <laughs> ate comme li nga xam moom mooy menuisier yi ah, menuisier yi utiliser bois bi ñoom liggéey bu métti la mm-hmm. parce que aujourd'hui soo jëlee nga xam ne moom mooy métallique bi métal bi sont des métaux yoo xam ne ne euh, ouvrier dañ koy absorbé mm-hmm. donc boobu noonu ñuy def mm-hmm. daf leen di indil yenn saa ay complications mm-hmm. cardiovasculaires xam nga mooy maanaam respiration bi mën na leen indil ay infection mën na leen indil ay yenn saa yi sax dañ nga gis koo xam ne day am cancer cancer du poumon parce que looy respiré day daal di stagné wu si sa poumon yooyu yëpp ay ay ay kii la yoo xam ne ne euh, nit dañ koy am ci liggéey boobu noonu xam nga ay xam ne koy am ci liggéey boobu noonu donc comme li ma wax la fois dernière rek Euh, nit ku ne yaay sababu sa bopp. Mm. parce que liggéey soo ci nekkee yow yaa war a mën a jël euh, say conditions yoo xam ne ne ëllëg doo ci am nattu. Mm. nattu yooyu mooy maladie yi ngay am ci absorption métaux yooyu noonu. Mm, mooy que ne toujours ñuy protéger wu. di sol masque yi les masques c' est très xam nga nee nga yenn saa yi mu laal la nga gumba wala am bu tis sa la sa bët yàqu. donc c' bien que ñuy utiliser euh, lunettes yi mais c' aussi très bien ñu utiliser masques yi. pour ne pas avoir des problèmes cardiovasculaires. que yooyu jaru ko fi aussi liggéey pour daan sa doole la am njëriñ boo xam ne dañ ko indi sa famille donc c'est pas pour que après nga doon nattu sa famille mm-hmm. mm-hmm. donc mu ngi noonu euh, moom nag loolu la indi woon mais Fafa moom pareegul ak ñun de ndax moom saa su ne day am yu ñuy dugal ak ci maa ngi man ak afta ndogu ah, amul daw amul daay dëgg la voilà donc nag on va continuer de plus belle avec euh, Bébé Chou euh, Bébé Chou nag moom nag te mu jeune toujours ci ne moom mooy li jeunes yi li ñuy woor di la loolu daal defe naa lool nga ma wax daal waaw Aïcha tey nag loolu laa indi mhm. mais defe naa ne du xam naa ne dina laal jeunes dina laal mag dina laal ñëpp daal waaye dañ maa yónni ne ma waxal ak jeunes yi mhm. damay nag rek daal di wax ak jeunes yi du noonu la nañ seetaan élément bi dellu si plateau bi rek ma daal di wax ak jeunes yi Aïcha à tout de suite noo gisee jeunes yi nga xam te ne dañuy woor di nelaw ba ngoon jot ñu doog a jóg waaw loolu jàmm rek a ci ne xam nga aussi tamit bu fekkee da ngay woo da nga woor amoo loo def aussi tamit man pour man mieux vaut nga dem tëdd nelaw ko nga nekk ci mbedd mi di wax loo xam ne dugg loo xam ne sa yoon newu ci wala ngay def loo xam ne genre day wàññi ci sa yoon lu bari man pour man loolu jàmm doo ci ne ah nga xam ne dañuy woor def ñu dara ñuy taxawaay ci mbedd mi di def yoo xam ne da ngay ree ba tas quoi day wàññi seen yoon lu bari man noonu laa gisee ah. waaw loolu moom bu ma juumul moom boo bokkul ci koor ndax koor boo koy def waxtu yu juróom danga nga ko war di matal boo wooree ba ngoon jot nga bëgg a yeew dog jot nga dog julli timis presque waxtu yi bari julli woowu ah man sama gis-gis boobu man du ma defee noonu damay jóg julli fajar soog a tëddaat su xëy jot ay 10 heures ma ñëw xëy 2 heures ak yëpp ne waxtu yi waañ wàññi. noo gisee jeunes yi nga xam te ne dañuy woor ba pare te duñu julli. ah loolu de moom bokk ci lislaam julli moom kenn mënul dem bàyyi ko ginnaaw da ngay booy bëggee sa jaamu yàlla mat da ngay julli da ngay woor. da ngay natt muuram koor da ngay génn asaka su fekkee ne boo defee yooyu yëpp ah ngay woor te julli amoo koor jullit dafay def yëfu jullit lu bokkut ci yëfu jullit na ko teg fële nit li mu nekk da koy gëm da koy gëm nekk ci boo ko gëmul du la jëriñ waaw loolu de moom lislaam mënu cee ànd mënu koo gërëm ndax julli dafa bokk ci ponk lislaam yi comme ni ci koor bokkee ponki lislaam juróom la seede ne yàlla mooy buur yonent bi la yónni nga julli woor dem màkka joxe azaka kon ni foofu koor doone farata noonu la julli doone farata benn te sax julli moo gën a doon farata ndax yowmal qiyaam yonent bi dafa nii dañuy njëkk a laaj jàmm bi yowmal qiyaam mooy julleem kon bu fekkente ni yaa ngi woor te doo julli boo sàgg nee li ngay def haba am man suural lay du mooy pënd boo xamante ni day dem rek di nga am coonay xiif am coonay mar waaye tiyaaba ba nga waroon a am ca voilà donc ki nga xam ne moom mooy euh, bébé chou loolu la ñu indiloon ci temu mu jeunes maanaam nelaw gi daal yow daal nelaw gi yàlla yàlla metti waaw nelaw gi ak ñàkk julli bi. Mhm. parce que defe naa ne bu ñu nee koor koor dafa ànd ak julli. Mhm. donc man mënumaa concevoir nga woor ba pare nga ne doo julli. Mhm. loolu defe naa ne yéen ñi koy seetaan sax xam ngeen ne loolu yenuwul maanaam ñi nga xamante ne nag parce que yàlla sax defe naa ne bu dul woor da mhm. war a respecté bu dee jullit nga da nga war a respecté les cinq prières de Dieu asamala nag bu dee koor donc da nga war a woor di julli mhm. parce que loolu mooy koor exactement man nag ñi nga xamante ne nag dañuy woor ba pare dina ba heure ndogu jot comme genre jeudi maman yi ni ñu koy defee du ndékki def seen ndékki bu baax loolu teguñu ko fenn tamit ah ndékki bi ba ban ndékki la ci ndogee ndogu genre dañuy nelaw ba ba 18 heures ñu jug ndogu dëgg la te doo julli doo def dara xam nga loolu tamit dafa nekk loo xamante ne c'est un peu kenn mënu xam voilà dafa yomb parce que tamit euh, yow mënoo ne yow yaa ngi woor mm-hmm. des fois yow yaa ngi yow yaa ngi nelaw mm-hmm. donc xamoo ban heure a jot xamoo ndax mm-hmm. heure a julli jot na xamoo ndax ban heure a jot donc te da nga war a jug julli tisbaar julli tàkkusaan julli géey c'est vrai que des fois dañ naan amuñu occupation mhm. wala amuñu liggéey donc dañ koy tëdd nelaw non non pourtant temps bi nga xamante ne mun nga ko nelawee mun nga ko jug nga jàng alxuraan mhm. bu fekkee munoo jàng alxuraan nga dem teewee ay jotaay yi nga xamante ne dañ ciy waxtaane yàlla mhm. am ci yàlla am ci yonent dëgg la defe naa ne loolu boo ko defee ah, parce que nag du ma ne doo am koor parce que yàlla moo xam voilà mais parce que yàlla nit sax defe naa ne boo wooree moom nga woor wala nga ñàkk woor moom loolu Euh, wàññilu ko yokkulu ko mm. mais la fait que rek nga def nga ne kii mooy sama borom daf maa sant kon damay def mm-hmm. def naa ne yàlla loolu tamit vraiment day nekk loo xamante ne da ci bàyyi da ci bàyyi xel dëgg la kon nañ ci bàyyi xel lu baax loolu nag ay chadu jeune yi mm-hmm. am na ay mag yoo xam te dañ lay ah, def loolu waaw waaw waaw ci bàyyi xel loo xam ne mm-hmm. amul yàlla fenn fu mu ci wax ne koor lii moo koy neexal lii moo koy yombal amul fenn fu mu mës a dégg waaraat kat wax ko amul fenn donte sama jàng soriwul amul fenn fu mu mës a dégg yàlla ne koor lii moo koy yombal wala lii moo lii koy baaxal lii koy gënal lay wax chaque jour sa koor lii koy dëgëral lii koy baaxal lii koy gënal mm-hmm. waaye lii koy neexal ba doo xiif wala lii koy tax ba doo sonn mosuma ko dégg fenn kon lépp looy def ci koor rek ba nga xam ne doo yëg sa xiif rek yaa ngi yàq sa koor parce que mm-hmm. koor dèjà xiif googu la ci yàlla nam mm-hmm. ak mar gi moo tax mu ne la bul lekk bul naan ci journée bi yëpp kon xiif ak mar googu la ci namm yaa ngi lépp loo xam ne rek yaa ngi koy def ci koor te muy muy naan wala loo xam ne day yombal sa koor rek koor ga ma dégg nga maam mhm. ah koor gaa nga commencé louche parce que yàlla loolu la ci loolu la ci nam lekk bañ a lekk bañ a mhm, naan xiif sonn mhm. parce que koor loolu la ci yàlla bëgg nga am coono sa sa gémmiñ ngay mar ngay xiif ngay sonn yaa ngi dégg mais sonn googu malgré sonn googu dafa am yu mu ki tegtal uh-huh. pour mu baaxal sa koor mooy ngay jàng alxuraan uh-huh. ngay dem ci jotaay baax yi di waxtaan uh-huh. di def côtoyer ñu baax ngi di waxtaan ci yàlla delloo sa di tudd turi yàlla di delloo sa xel ci yàlla waaye yaa ngi dégg parce que xiif googu nga xiif mooy delloo sa xel ci yàlla parce que moom moo la ko teg gisoo kenn ku téye ne la bul lekk gisoo kenn ku téye ne la bul naan kon boo toogee su nga sant yaa ngi xiif rek sa xel day delluwaat ci yàlla parce que nga xam ne yàlla moo ma teree def lii nii loolu si yàlla na moom mhm. mhm. euh, xam nga xaleel dafa nekk koo xamante ni day mhm. copier en général mag ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite xale yi même état adolescente bien vrai que yaa ngi jël ba yaa ngi jëm benn tànk ci euh, la maturité mm-hmm. du tee des fois yow da ngay jëm di toppandoo xale li ci ëpp muy bu ndaw bi ba ci adolescent bi mm-hmm. moom tout le temps day xool li nga xam ne moom la ko mag li mag ñi di def mm-hmm. mu koy copier donc c'est mag ñi laay waxanteel mm-hmm. ñoom ñooy joxe déjà le bon exemple mm-hmm. parce que da ngay dugg kër fekk fa magum jëmm mu toog wóorul deful dara di wane exemple ñàkk jom xale bi bu ko gisee day foog ni loolu mooy lu normal kon moom tamit bu wooree mën a dem tëdd nelaw bu dog jot mu jóg dog foog ne nag fudd dafa ni am na koor alors que demeewul noonu kon ñu delluwaat di sensibiliser encore les jeunes mais plus di conseiller aux grandes personnes que ñuy joxe de bon exemple toujours comme ça xale yi di ci mën a suivre mais mais Aïcha ñi nga xamante ne dañuy dañuy dem liggéey sax di woor mm-hmm. ñi tëdd seen kër di nelaw gënuñu leen donc dañu war a bàyyi ñoom tamit xel xam ne mm-hmm. ñi aussi peut-être ñi ngi def ñoom ñi ngi def bëgg nañu tëdd bëgg nañu tëdd mais dañu dem liggéey di woor yeete xëdd ñu yee leen ndog <laughs> ñoom ñooy yeete xëdd ñu yee leen ndog dafa am ñoo xam ne la ñu tuddee seen weeru koor fafa ne na hmm? ñu euh, yeete xëdd ñoom ñooy yeete xëdd ñoom la ñuy yee ndog maanaam ñoom ñooy yee nit ñi pour ñu xëdd ñu xëdd hmm? ndax looloo leen intéressé waaw euh. waaye ñoom la ñuy yee ndog d'accord ça veut dire que ñoom guddi nga xam ne rek dañ koy lekk di ko naan yëpp duñ ko nalaw dañ koy xoole di ko lekk di ko naan def seen yu baax di ko xoole ñiy nalaw ñu yee leen kaay leen xëdd bu ñu xëddee ba pare koor gi commencé na ñoom nalaw nañ ñoom waaw ñii woor woor bu normal yaa ngi dégg woor journée bi yëpp bu dog jotee ñu yeel ne kaay leen dog waaw Aïcha ndax foofu koor am na ah, la nag comme comme li c'est ah, important comme li may wax man xalaas man xalaasu bébé show bi dinaa ko ci dóor ci <laughs> voilà donc comme lu may wax rek bébé chou mhm. euh, l'islam bi maanaam pratique bi méttiwul mhm. ndax soo seetloo euh, am na ay yoo xam ne def nañ ko ci biir l'islam mhm. pour ñu bëgg lu yomb li ah wala ñi nga xam ne amuñu jot comme li nga wax tey nelaw gi euh, nee nañ daganut parce que soo nelawee da ngay fàtte heure de prière yi te aussi li fa faa wax xiif gi nga bëgg xiif gi nga bëgg yàlla sentir ko du ko sentir ndax yow soo nelawee mel na nga ko dee rakku dee na yoo xam ne ne par exemple am na ñoo naan mënuma jàng alxuraan dégguma làkku dégguma làkk arab mënuma lire arab du dëgg donc ñoom prétexte yooyu dañ koy ut yenn saa ñu ne la demal teewe yoo xam ne jotaay yoo xam ne dañ ciy wax yàlla mm. dañ ciy wax yonent dañ wax lislaam mm. te mu ne la euh, foofu dafa sori waaw du dëgg y a des yoo xam ne ne dañ koy teg pour loolu euh, deuxième méthode bi nga xam ne ne gis naa ñu koy def mm-hmm. mooy ñi nga xam ne ne euh, dama koy gis ñu koy def nag dañuy julli bonus mm-hmm. julli yenn saa dañ la naan naafi la loo gën a naafi la rek ay bonus la dañ koy yokk mm-hmm. du dëgg am ñoo xam ne dama leen gis ñoo xam duñ nelaw mais dañuy julli am na ñoo xam ne dañuy wérd mais wérd boobu yenn saa yi peut être yow yor coulisse bi dalay xaw a sonal wala dalay déranger wala dalay nekk milieu boo xam ne doo bëgg a yor coulisse am na euh, coulisse électrique yu ñu def yoo xam ne coulisse yooyu noonu da nga koy ba def sa baaraam mhm. soo sa baaraam donc koy bës maanaam yow mu comme nii nii mën naa ne ci plateau bi na mën naa nekk ci na waxuma ak nit maa ngi maa ngi def beneen activité mais maa ngi wér daale biir mhm. te wér yooyu noonu day baax nga gëstu mhm. euh, borom diine ku am xam-xam c'est simple ne ko man damay bëgg di wedd dans la journée lan laa lan laay def moom dina ne waxal lii ak lii ak lii c'est simple donc soo defee loolu yor sa li nga xam moom mooy euh, euh, course électrique bi di ko bés pandànk di wax say say say say wedd et puis ça passe un moom defe naa ne neex na ah sànq xoola maa ngi waxante ki nga xam ne mooy Moussa ñu koy saluer de passage mooy suñu Senghor de la maison muy mm-hmm. muy expliquer yi actuellement nii mm-hmm. prétexte yi bëri na. Mhm. mais bu ñu xoolee ba ci biir lépp mu ngi suñu kanam. suñu ay téléphone mhm. nouvelle technologie yi ni mu développé. Mhm. boo déggul alxuraan bi. wala yow mënuloo ko lire. boo taalee sa téléphone takk sa écouteur di ko déglu sax di ci am yàlla. dëgg la da lay jàngal xam nga xam nga madame Niass daf may wax benn affaire maam jaaram koy nuyu de passage daf may wax ne ma amul kenn kuy dox ci àdduna. même même chrétiens yi sax na amul suñ mbokk yi te mënoo benn baatu turu yàlla amul mhm. yaa ngi de bu nekkee maîtriser woo dara ci alxuraan dara dara benn kalimatul xaq bi ngay mën turu yàlla bi ngay mën rek di ko wirde wala nga koy dóor mhm. loolu c'est simple nga jàpp ci loolu loolu loolu mën na defar sa koor laa ilaha illallah laa ilaha illallah mu boo ko yendoo yaa ngi dégg wala conseil moo kenn digalu moo kenn par exemple laay joxe mhm. exemple damay joxe exemple kër benn kalimatul xaq wala benn turi yàlla mënoo koo bañ a mën mhm. wala benn phrase alxuraan wala dara loo xam ne mun nga ko wax ko yàlla nangu sa koor mënul ñàkk laay laay la ba dox fi naan faafaa ko plateau af ta ndoko ba waxuma ko kenn exemple laay joxe nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te xam ne woor dafa ànd ak julli woor àndul ak ay nelaw nañ ci bàyyi xel ndaxte loolu aussi jeunes yi laa doon waxal si mais defe naa defe naa ne am na ñoo xamante ne am nañ ci part de responsabilité suba in allah nag Aïcha damay ne beneen tem thème bi may indi nag xam naa ne am na ku toog ci plateau bi moom ah. ah. loolu moom loolu da koy intéressé ah, da koy intéressé. d' d' accord ok donc la ñu sama hmm. ah, doom lay mais matal bi nag la la. yow ku ma xar ba nga may buum moo ma jaaxal. kenn dama dul yëpp ci plateau bi ma dama toogul ak benn jigéen bi may yëpp. Badou waaw kenn dama dul yëpp. kon yow xam nga déjà lu muy indi suba. non xaw ma ko jim ma koo décoder. bàyyi ma rek moom sama fula laay. ah da moom sama fula jàpp sama ñaar quoi. <laughs> mais téléspectateur yi nee nañ bëgg nga am bëgguñu dañ naa nam dama balaa maa dem boutique bëgg naa nga wax ak mbokk téléspectateur yi bu ma naree tutoyé damay damay jàpp non du la ma man maa nekk pour séparer leen te nag dañoo nekk weeru weeru ramadan donc ah. dañuy dañuy di ma tooñ ah. dama leen teel benn histoire nag bu ndaw dafa benn gel bu dugg ci benn benn bis quoi te suy suy ut lu mu lay bi mu duggee ci bis bi yaa ngi dégg bi bis bi mm-hmm. téléphone am wadd mm-hmm. bi téléphone bi yenn gaa yi si xam nga foo foo foo fekk ñu jub rek am na ñu jubul waaye gi seen téléphone bi téléphone bi wadd rek tafat téléphone bi gël mm-hmm. gël bi di seet téléphone am seet ba sonn gisul seet téléphone bi seet ba sonn gisul seet téléphone ci bis bi gisul mu ne sama càmm waa grand yoroo téléphone ootam sama téléphone man sama téléphone léegi fii nii mu wat dama ko doo ma ci ba xam am gars yi ko ci bi mm-hmm. muy woote nekk téléphone vibreur la nekk waa ji sàkk téléphone mu ko téye téléphone baa ngi vibré bi muy vibré ki loxo yi nag affaire bi loxo bi di loxo mu mu xool lu mu ko def xamul mu ko def rek mu seex téléphone bi. Eh, seex seex même. jël bi continuer di woote di woote affaire bi di vibrer ci gémmiñ gi di vibrer ci gémmiñ gi waa ji wan na bi. waaw ñu ko wan ne bilaay daf ko wan ne mu jàll mu amaale téléphone bi. Ah, jël bi continuer di woote affaire bi di vibrer ci biir bi. di vibrer ci biir ba waa ji daanu ah, bi mu xamee gars yi janga janga yóbbu ko hôpital. Mm-hmm. Mm-hmm. médecin bi dafa ñëw di ko xool. Mm-hmm. xam nga dañu gis bët di la xool. ci bët bi ne nii rek nii ak tors bi rek gis ci bët yi 35 appels en absence <laughs> message. ak 700 messages. kon moom bët bi la ubbi tijji. bët bi la ubbi rek nit ak torse bi rek gis ci bët bi 35 appels en absence tijji beneen bët bi gis 700 messages. <laughs> ok xam nga ne di nga def ba sax. kooku booy faafa. nee naa leen Fafa ci plateau bi donc mu ngi noonu nee na kon nag ñi nga xam ne pickpocket yi dafa am ñoo xam ne ñoo mën a sàcc. dëgg la dañuy sàcc ah, ma nettali la beneen. dafa am benn waay. Ah. carrière bi da koo sàcc. fu ne nii yaram bi tàng na bi yëpp da koo sàcc. sàcc rek lay def. yaa ngi dégg sàcc. ñu tëj sàcc ñu tëj sàcc ñu tëj ba mu gi un jour mu sàcc rek waat ko police. commissaire bi gis ko ni ko yow xamu nu ma lay def sàcc nga sàcc sàcc yow la xaaral dagg benn loxo bi fii. ah, ah tamit libéré ko loxo bi bu wér ñu andiwaat waaye ngeen dafa sàcc. waaw. waaye comme sëñ bi ne ko amoo jom ba léegi ba léegi yaa ngi sàcc daggaat benn loxo bi. fii nii ñaar loxo yi toll fii nii. ñu dem ay 6 mois après ñu andi waaj ne moo sàcc saako ceeb. <laughs> ko ceeb. comme sëñ bi ne ko kii dafa mën a sàcc saako ceeb ni nga yeb nit ñi ñi ko andi mu ne gis ngeen yéen yéen laay tëj kii fu muy sàkkee saako ceeb yéen di ngeen ñoo yaban ah. kii nekk ngeen koy sosal temps yëpp yéen ah. chaque ah, sa loxo yi ma dagg yëpp man maa la tooñ affaire yooyu noonu mosoo saaj saako ceeb baa ngi ni jëloo may raf waa ngi ni bi saako ceeb teg ci mbagg bi eh, tegal yaa ko teg ci kabal gaawal asa asa ngi noonu kooku moom mooy Fafa Fafa nag moom nag kenn mënu mënu ko muñ dégg ngeen fu muy génn Fafa di nga yàq sama téléphone léegi maa ngi noonu la ñuy tàggatoo ànd ak yéen lii mooy plateau after ndogu relax plateau waxtaan plateau lépp plateau waxante lu baax xam naa ne yéen a ngi dee fi ngeen toog ki ngay Fafa kenn mënu ko dara donc sama gars yi maa ngi leen di tàgg noonu lañu bi. sàcc bi yàlla <laughs> na yàlla ci sàcc. yàlla na yàlla ci li la la saako ceeb ba teg ci mbagg bi amul ne policier bi ay <laughs> tegal ko jël jeex na donc sama gars yi war leen di jox euh, rendez-vous demain à la même heure. du dëgg incha allah kontaan nañu bu baax a baax a baax. à demain mm. à demain incha léegi nag dañuy dem seetaan euh, li nga xam ne moom mooy jingle boutique bi ma tasante ak yéen ci biir boutique bi ayca. lii nag tey bu ko Richard Toll amee yàlla nga ko jaarale ci soxna Khady Diaw tafsir Abdourahmane tafsir defe naa di nga jaar lu tax gis nga ku def lu baax ku def lu baax lu baax li ngay am du yem ci yow day landi tasaaroo laal réew ma yëpp yàllaa toll noonu moo tax gis nga def lu baax rekk ka am solo yéen wa Sénégal yéen waa adduna bi yëg leen ni yàlla ne ku jub nag sa bopp nga ko def ndax bu ëllëgee la nga liggéey lépp di nga ko fa fekk wa man dalla fa innama yadillu alayha yàlla ne képp ku topp yoonu sànku te ba sànku sa bopp nga ko def sa bopp ngay sànk waaye gars yi na leer na leer wala tadiru waziratun wizra ukhra Muhammad a ko jàng yàlla ne amul kenn ku bari pexe bari pexe ba mën a def bàkkaar ñu yàpp ko keneen Sénégal a ngi nii dégg ngeen ñi ci kaso yi léeg-léeg ngeen dégg ci kilifa boo xam ni am na ay njabootam yu pare pour tëddal ko ca kaso ba mais est-ce que nit dina lekk kees doomam wala militant wam dem tëddal ko ku lekk yaay tëdd wala ku ñu tuumaal yaay tëdd moom la yàlla ni wala taziru waziratun wizra uxra kenn mënula gàddul kenn bakkaar ku ne loo def yaa koy gàddu 5 kg de muscle, le colosse ne recule jamais devant l'adversaire. Il est surnommé le B-52 de Mbour. Bombardier, le roi des arènes. On l'appelle Kharagne, le technicien, l'artiste. Grâce à sa popularité, il est devenu un phénomène. Il a battu les meilleurs de sa génération. Modulo 25 juillet, Stade des Diop, deux gladiateurs déterminés à en découdre pour le titre de roi des arènes. voilà donc mbokk téléspectateurs yi nag euh, ubbiwaat nañ boutique bi di woote ci mooy numéro de téléphone bi ngeen xam ne ne di ma mën a jot en direct ma jagleel leen teranga yëpp leen pati seen euh, jagleel ndax euh, question yi ma posé tout au début de l' émission da ngeen di woote daal di avec exactitude incha allah ngeen gagné ci yu baax yi ndax nee leen pati seen ñoom ñooy sponsor number one fii ci plateau yi ba pare wëlbatiku jël seen yu baax tegal leen ko fi pañe dox daje bi ma gis pañe dox daje li ci nekk bëpp lépp marque boo xam ne ne pâtissier da koy liggéey rek mu ngi ci biir paja dox daje bi ndax nee naa leen dox daje am na dolli dolli ngi ci biir dolli muy bouillon boo xam ne ne euh, vraiment dafa neex famille dañ koy utiliser bu baax a baax marché bi marchand yi nga xam ne dañuy jaay bouillon bi gis nañ nu muy doxee moom ak Adja euh, moom ki nga xam ne ne aussi moom mooy kongu kongu kafe bi ndax en ce moment nag kafe euh, day dox bu baax surtout kangu café gi dañuy daal di ndékki ñëpp ay ndékkindoo donc double ndékki lay doon ak xëdd bi aussi beneen ndékki lay doon donc li nga xam ne ne aussi moom mooy aja euh, vinaigre moom it mu ngi fii am na aussi euh, chocopin chocopin baa ngi fii aja beurre mu ngi fii kangu jus mu ngi fii moom la ñuy naan ci plateau bi mu am mu oyof am texture bu neex boo xam ne soo koy naan vraiment da gis da ngay sentir fruit yi ñu ko constitué maanaam xale yi bëgg nañ ko mag yi aussi bëgg nañ ko donc loolu moom moo nekk dox daje bi paña dox daje bi bi euh, li nga xam ne noonu aussi moom mooy siwo yi paan yi li nga xam ne moom mooy lave-mains yi ak saaku ceeb yi aussi buñ ko fàttee yéen lañ ko may ndax ki nga xam ne moom mooy Jim Production Patisen ak 2STV moo leen koy jagle am na ku nekk ci ligne bi ñu dem koo jël rek xool naka la ñuy tontu noonu la wala du noonu allo allo allo allo allo. voilà defe naa ne euh, fu ne nii xëccoo gi la ndax fu ne nii instant bi euh, ligne bi day daal di mais da ngeen di def ndànk rek jéem a dugg ndànk-ndànk di leen fàttali numéro bi muy 88 628 69 69 ci ngeen tàppe ci numéro boobu noonu incha allah di ngeen dugg di ngeen ma jot ma teral leen ci yu baax yi nee leen yéen ko moom saaku ceeb yi li ma ciy wax mooy que ne euh, ñaari saaku ceeb yooyu chaque jour dañ koy maye bon yooyu noonu à partir de demain maanaam vendredi soo leen fàttalikoo ci la ñuy def remise yëpp yoo xam ne ne mooy bon yu ñu mayee muy maanaam quoi bon de coiffure yi mooy maanaam bon euh, ceeb yi muy aussi euh, pañe ndogu yi muy gadget euh, ndogu yi aussi donc loolu yëpp vendredi suba incha allah lañ koy def fii remise bi fii ci plateau bi en direct si after ndogu kan moo nekk ci ligne bi ñu jël ko allo allo. allo waaw. waaw salaamaaleykum sëñ bi. sant naa ñu ngi sant bu wér naka ngeen def. ñu ngi sant bu baax. macha allah foo ñu woowee. maa ngi wootee Jam Ñaajo. Jam Ñaajo. tur bi naka la. Moustapha Kanté. Moustapha. Moustapha Kanté. Moustapha Kanté. Mhm. Moustapha euh, waa Jam Ñaajo naka la ñuy gisee émission bi. waaw émission bi xanaa neex de. moom waaw. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg moo tax may tey xanaa ma xool. dëgg la kon nag Moustapha Kanté yow dèjà yaa ngi ñuy woowee fi nga xam ne moom mooy jam ñaajo dèjà ñu ngi lay offrir benn bon de coiffure Kamal euh, ki nga xam ne ne li Eva di wax nee nañ moom mooy coofu euh, coiffeur yi expert la ci coiffure góor ak jigéen moom dèjà amagum nga bon wu Kamal dégg nga. Mm-hmm. alors Moustapha euh, yow mi nga déggal nga sama question yi ma doon posé ci Patisen. waaw dégg naa man kay Adja bi moom. waaw dama ci kontaan sax. da ci kontaan. waaw ah, parce son lu waral loolu. su ma wàccee. Mhm. xam ci la may bëgg waaye dama toogal ceeb baal nga yokk tuuti sa baat ma mën a dégg li ngay wax. ma ne saa ma wàccee nii. waaw. son ci la may toogal ceeb bu ah yow mi abba yow mi yow mi sama sama mbokk nga de ab juufeen nga xam naa rek. <laughs> yow ma ab séeréer nga rek xam naa. Ah. <laughs> kon daal soxla si day togg ceeb yi neex di ko di ko di ko toggee ak aja waaw ah ban aja lay utiliser moom koy ñaari aja aja doore bi ak aja aja doore aja doore mm-hmm. laaj femme bi nga xam ne ne sa soxna newu sa wet mu ngi sama wet kay laaj ko ñaata aja moo am mu ne ñaari façon aja moo am mooy ban ak ban la aja tomate ak aja doore Adja Tomate ak Adja Doore. Ah. ah moom xool na Adja mi bu baax. ah loolu la ma de. loolu la wax. Ah. waa xëy na ne moom moo koy woowee noonu euh, ban ban ban mooy defar Adja allo. voilà donc euh, ligne bi moom it mi ngi noonu day saturé ndax gars yi dañuy dañuy siif siif bi nag euh, dara waral lu ko lu dul teraanga yi nga xam ne ne moom moo nekk ci plateau bi ndax vraiment kenn ku nekk fi nga toog war ngaa mën a bëgg euh, mooy pañe ndog pañe ndox daje yi nga xam ne lépp loo xam ne pâtissier mu ngi koy liggéey ci marque rek dugal nañ ko ci biir pañe ndog yi ba pare ñu ne Aïcha loolu dayul dañ ciy teg ay ay paan teg ci ay siwo teg ci ay lave mains donc bu ñu fàtte aussi ki nga xam ne ne moom mooy euh, Good Life Store ndax nee naa ne Good Life Store ñoom it dañoo indi seen yu baax euh, di ko jagleel mbokk téléspectateur di ko jagleel askan bi seen yu baax yi nag produit yi nga xam ne ñu ngi nekk ci plateau bi ñoom Amérique lañ ko jëlee euh, pays de l'oncle Sam nee naa leen am nga li nga xam ne ne moom mooy Listerine de bouche bi am na li nga xam ne ne aussi moom mooy Suprême bébé am na aussi li nga xam moom mooy lait de corps yi fait nga xam ne day protéger contre les rayons UV maanaam les rayons solaire agression bi instant bi on est en été bi nag moom ñëpp xam ne ay débardeur la ñuy sol wala ñuy sol loo xam ne dafay oyof xam nañ ne rayon solaire am na doole doole boo xam ne day pénétrer ci biir euh, yaram bi di di xaw a agressé tuuti sa peau ñu jël ki nekk ci ligne bi allo. allo allo. waaw na nga def soxna si. maa ngi may tur bi naka la. Maymuna. Maymuna naka. Maymuna Ndiaye. Maymuna foo ñu woowee. ñu la woowee Wakaam. Wakaam ah waa Wakaam de moom gis naa ne bu baax ke ñu ngi suivre émission bi naka waa Wakaam. ñu ngi si jàmm. ñu ngi jàmm bu baax. waaw alors tey naka nga dundee yow euh, koor gi tey. koor gi de neex na tuuti rek. neex. waaw ah mooy man d'accord ma ak yow. ah nee na mais dafa xaw a tàng na. ah voilà exactement te aussi ñu ngi commencé xuus ci ci fin bi du dëgg. waaw waaw donc doole bi ñu amoon day daal di jeex. waa voilà donc loolu c'est important Maimouna. Hmm? alors question yi nga xam ne ne moom laa la euh, posé ci Adja yow maa ngi lay déglu. am na Adja tomate. am na Adja tomate. Adja doore. Adja doore. am na Adja tomate Adja doore. ah Adja épice. ah Adja épice. waaw donc waxaat ma ne ñaata Adja moo am. ñetti façon Adja. ñetti façon Adja yow est-ce que dégg nga bu baax li ma la wax. waaw. ñaata façon Adja moo am dama lay mayal chance tuuti. xoolal rek ñett ñett. waaw d'accord muy Adja. Adja tomate. Adja tomate. Adja Doré. Adja Doré. ah Adja Épice. ah Épice. waaw d' accord ba tey euh, man société boobu mooy defar Adja. Roudeur Fils. la. Roudeur ban société waxuma la adresse bi mais ban société moom mooy defar Adja adresse bi xam naa ne xam ngeen ko ndax yéen ñëpp da ngeen fay dem du dëgg ban société la. ah man de Roudeur Fils laa yaa ngi may dégg ah yow Roudeur Fils rek nga jàpp. waaw ah, kon yow sa xel Roudeur Fils la nekk. waaw d'accord ba tey war ngaa mënoon laaj nag ñu nekk sa wet euh, léegi dama bëgg nga wax ma Adja yow Adja yooyu nga ma limal fan nga ko mën a def. Adja tomate ci yan togg waaw. Adja tomate. bi. mën na dem ci ceeb bu xonk. ci ceeb bu xonk. ak kii cu diwtiir. cu diwtiir. Adja doore. Adja doore. mën na dem ci ceeb bu weex. Mhm. ak sos bu doore. ak sos sos bu doore. waaw d' accord. Euh, kii bi ajaa épice bi. Adja épice. fu muy dem. Adja épice mën naa dem si suppu kanja. bu suppu kanja. waaw d' donc euh, comme li nga wax euh, yow nee nga ñetti ajaa moom moo am ah. waaw d' accord donc ñetti Adja yooyu benn bu nekk wax nga fu mu mën a dem. waaw léegi yow xam nga ajaa lu muy jar ci boutique bi. waaw ñaata la. benn juróom. benn juróom. waaw xamoo tablette bi lu muy jar ci boutique bi. xamoo ko ah allo voilà donc ñu continuer ba léegi maa ngi leen di xaar ci li nga xam ne mooy 88 628 69 69 donc dégg ngeen soxna su tontu na euh, ci li nga xam ne moom laa ko laaj léegi nag dama bëgg ngeen gën a dégg li may wax ngeen gën a xool euh, su fekkee ne aussi am nañu toog seen wet ngeen laaj leen est-ce que ñoom gënuñoo jàpp réponse yi ndax yéen ñi yéen a ko moom dama bëgg ngeen gagné man bëgg naa fii vendredi euh, lépp daal di dem allo waaw soxna si na nga def. waa na nga def soxna si. maa ngi fi. sant bu baax. maa ngi sant bu baax. macha allah tur bi naka la. Adama Gueye. Ada foo ñuy woowee. Maris. Maris. waaw alo tey Maris naka lañ dundee koor gi tey. ah neex rek. neex kon koor day neex. xam nga boo ànd day neex. day neex de ah. waaw yow loo togg tey. tey ceebu jën laa togg. loo ci def. Adja tomate. ban moment nga ko ci def. ñu ma ñu liggéey. da ñu liggéey. waaw laa ko ci digalee. nga ko cee digal. ndax mu bañ tamaate ji furi. déggal loolu. loolu am na maanaa yow am na yow mi tokkat nga faa nga invité ma ma ñëw añ si foofu du dëgg. waaw beneen ajaa bi mooy ban. ajaa super doore. ajaa super doore. waaw moom la ak ak ajaa épice. ajaa épice bi. ak ajaa tomate. ajaa tomate léegi yow nga ne ajaa épice bi foo koy def. ajaa épice moom mën na togg kii ceeb bu ceeb bu weex. ceeb bu weex. waaw dooreel ko. dooreel ko. ceebu yàpp it noonu. ceebu yàpp it tamit da koy dooreel. donc aja épice bi yow da nga da may wax ne ne aujourd'hui mun na safal ceeb bi wala safal sauce bi ba pare da koy dooreel. da koy dooreel kon moom mun na def ñaar yooyu. ma ne avec Adja tout est possible. tout est possible. waaw du dëgg. <laughs> kontaan naa ci loolu léegi dama bëgg nga wax ma juste euh, prix wu Adja lan lay jar ci boutique bi. bu dee kii bi mille 1200 lañ koy jaayee. bu dee tablette bi. waaw 1200 lañ koy jaayee. par benn juróom waa benn juróom. waa waaw yow ça se voit que jëndkat nga du dëgg. waaw voilà donc xam naa ne léegi yow bul coupé. Euh, hmm. incha allah si suuf dinañ jël sa numéro de téléphone ak sa adresse. Euh, suba nag mooy remise des lots yi fii ci kaw plateau bi. waa ku ñu woo. de la part de la wax la ne jox nañ la rendez-vous fii ci 22h ci plateau bi rek xamal la ne gagné nga. du dëgg mu ngi noonu donc comme li ma wax rek képp ku ñu woo téléphone euh, ni la da ngay ñëw fii ci 22h ci plateau euh, after ndogu fii ci 2STV xam nga ni gañe nga soo ñëwee nag mën ngaa ñëw fekk fi li nga xam moom mooy pañe mën ngaa ñëw fekk fii li nga xam ne ne euh, moom mooy lave-main yi paan yaa ngi fii siwo yaa ngi fi donc lépp loo xam ne ne dañ koy maye rek mu ngi fi bon yi aussi mu ngi fii mooy Bodizène moom it mu ngi maye ñaari bon donc bon yaa ngi nii macha allah ki nga xam ne moom mooy Kamal aussi mu ngi ay bon de coiffure donc bon yaa ngi fi Jim Production en partenariat avec la 2S ki nga xam ne moom mooy pâtissienne aussi ñu ngi leen di offrir ñaari saaku ceeb par jour donc lépp incha allah lépp ko findel fii suba euh, ñi yëpp koo xam ne gañe nga incha allah soo ñëwee rek dinañ ko findel donc comme li ma leen wax rek euh, li mooy after ndogu donc dee leen woote ma leen di xaar ci teraanga yi saa su ne ñu jël kooku nekk ci ligne bi allo. oui. def sëñ bi. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. yéen a alhamdulilah. macha allah fan ngeen ñuy woowee sëñ bi. Euh, H&M. pardon dégguma. Dakar HLM 5. Dakar HLM 5. oui. ah d' accord ana waa HLM. mu nekk Lamine Diamba. waaw ko ah, waa HLM mi nga xam ne ne fa la évasion tey def reportage am boobu. <laughs> alors yow euh, xam nga Adja bu baax. xam naa ko bu baax a baax. bu baax a baax yow nan nga mën a wax ci Adja. Hmm, sax na neex na. surtout mhm. encore Adja daal lépp jàmm. dégg jàmm. yow daal su la soxna si tegalee euh, palaat bi rek yow macha allah da ngay kontaan. du ma ko mu sax. dégguma. mais du ma ko war sax bu may wér. doo xool sax doo xool sooy wér. billaay. ah bon. oui. ah <laughs> loolu loolu loolu loolu rëy am na solo ndax defe naa ne comme Adja moom day accompagner femme yi kon loolu nga bëgg a wax. macha allah. da leen jàppale ci sëy bi. billaay. Ah, am na solo de ah. jeex na donc dama bëgg rek nga wax ma euh, li nga xam ne ne moom la sa jabar di togg ñaata forme ñaata ajaar lay fas yéene di togg chaque jour. oh y a deux. deux d' accord ban ban la. dégguma. pardon. aja épice. aja épice. ak aja doore. ak aja doore. oui. Ah, mm-hmm. moom lay togg chaque jour. waaw. Ah, donc ok léegi ban ban société moom mooy defar ajaay yi. Hmm, Patisen. Patisen moo koy defar. ñaata la ajaa di jar en boutique. Euh, vingt cinq francs. Mhm. par un euh, le paquet à mille deux francs. xanaa yow yaay jënd ravitaillement bi. <laughs> yow yaay dem ci magasin bi ah. neex na ma trop de. yow yaay yow bi dafa mel ni yow yaay jënd Adja de. <laughs> yow ku xam Adja na yow. <laughs> ma la ko wax. <laughs> du dëgg. mu ngi noonu kon yow kontaan naa bu baax ci yow euh, yow mi nga xam ne ne woote nga ci Adja donc bu coupé ñu jël sa numéro de téléphone ak sa tour exact bi nekk ci carte d'identité bi ci suuf dégg nga sëñ bi. lan nga mën a wax ci euh, After Ndongo. After Ndongo vraiment ma ko tardé quoi sincèrement. dëgg la. damay yàkkamti wàcc yi ba ñëw jël sama temps ni ma ci meeku dema ah, yàlla gën a xam waaw maa la gën a xam daal <laughs> waaw dëgg la loolu loolu am na solo loolu am na solo comme li ma wax rek euh, diggante euh, naafila ak xëdd ñun ñoo fay nekk leen gunge du dëgg waaw maa la ko waxee dëgg la kon kontaan naa bu baax sëñ bi ok maa ngi gën a kontaan ñu ngi lay souhaiter une bonne fin de soirée merci beaucoup donc bul coupé ñu daan laa jël ci suuf donc mu ngi noonu donc di nuyu waa HLM 5 euh, bu baax a baax a baax di nuyu waa jam Diamniadio euh, di nuyu waa Mermoz ak képp koo xam ne ne yaa ngi seetaan After Ndogou fii ci biir Sénégal ci quartier yi ci région yi dans la sous-région aussi ñu ngi seetaan li nga xam ne moom mooy After Ndogou ñu ngi seetaan daal maanaam defante ba mu baax defar ba mu baax fii la ci plateau After Ndogou seen rubrique di ñëw teral leen ci ay euh, thèmes yu baax ci ay sujets yoo xam ne dañ leen koy xuusal ba ci biir ñëw nag ci boutique bi ubbi leen ko jagleel leen yu baax yi donc suba la remise euh, des lots yi képp koo xam ne gagné na incha allah di nga ñëw fii ci plateau bi ñu teral la donc comme chaque jour nag man maa ngi kontaan à chaque fois di remercier ki nga xam ne ne moom mooy Chalax Mariam Chalax ci tunique yu may defal à chaque fois ngir bégal leen dañoo nekk ci weerum koor faa ñu sol lu leen lu leen di bégal ndax nee ngeen plateau bi slogan mooy tàkk ba yàqu saa yoo leen jàkkaarloo yi ñun rek yéen a ngi yaakaar gis di tàkk ba yàqu te incha allah ñu nit loolu la ñuy ñaan donc di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ñëpp képp koo xam ne yaa ngi woote wala jéem nga dugg mais duggoo egsi woo aussi da ngeen di essayer demain wala lundi incha allah donc nag man maa ngi leen di jox rendez-vous demain la même heure de 22h à 23 fii ci 2STV à ne pas rater plateau After Ndogou yéen a ko moom du keneen.